ci téeréem bii nga xam ne moo siiwee saxiixu muslim ba tey ñu nekk ci kitaabul iman tey ñu tiim bunt boo xam ne day wax ne baabu bayaani ann al islaama bada'a gariba wa sayacuudu gariba wa annahu yarizu bayna al masjidayn باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا bunt la boo xam ne li muy leeral moo di lislaam bi muy tàmbali dafa tumuranke woon loolu mooy bada al islaamu xariban dafa tàmbali ci ak tumuranke mooy ak néew doole ak ñàkk pexe ak ay noon yu bari doole boole ko ak bari pexe foofu la lislaam tàmbalee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa sa yahuudu gariba te lislaam jooju dana delluwaat tumurankewaat maanaam jamono dana ñëw jullit ya néew doole néew ay pexe seeni noon bari doole bari ay pexe mu ne wa annahu nekk moom maanaam moom lislaam ya rizu dana dellu baynal masjidayni te diggante ñaari jàkka ya maanaam bu ñu demee ba lislaam tumuranke it nag diggante ñaari jàkka ya mën nañoo rafet njort ne lislaam moom dana delsi foofa dëgër fa jàkka jam ci jublu mooy jàkka ja nekk Makka ak jàkka ja nekk Madina moo tax xadis yi ñëw ci kanam ci biir bunt bi xëy na doon ca àgg ci jataay bi waaye dana wax ci xadis ne imaan ci boppam dana dellusiwaat Madina imaan ci boppam dana dellusiwaat Madina comme ni nga xamee ne jaan bu xëyee génn am paxam dem bu ngoonee day dellusiwaat fattu siwaat nee na imaan dana dem ba jëmmi jamono mu fattu siwaat Madina maanaam day mujj mel ne ngëm bu wér wala pas-pas bu wér day mujj mel ne foofa lay jafe kon loolu lay junj dana ñëw ci kanam loola danañ ci wax kon daal bunt bi li ko tax a jóg mooy leeral lislaam ni mu tàmbalee woon ci ak tumurankeeku néew doole ba mu yàgg mu dëgër nag ànd ak doole ba mu yàgg mu dellowaat ci néew doole ci kaw suuf bunt boobu loolu lay leeral ak fitna yi nga xam ne dana gaar nit ñi ci mujjug jamono ba tax seen diine doon diine joo xam ne ju woyof lay doon su boobaa kon xadis bi jëkk a ñëw mooy bi mu wax ne xaddathana muhammad ibnu abdillah ibni numayr kooku ci sëriñu imam muslim yi nga xam jëlee na ci moom lu bare bare bari ci saxiixam bi ci la bokk mooy muhammad ibn abdullah ibnu numayr waaye lu bare bari day wax rek xaddasana ibnu numayr loolu lay gën a faral di wax kon daal muhammad mi nga xam ne abdullahi mooy baayam numayr di maamam moo ma nekk ni qaala xaddasana abu xaalid mu ne abu xaalid nettali na ma yaani suleymaan ibn xayaan an Saad ibni Taariq an Ribi kooku mooy Ribi ibni Xiraash ibni Xiraash ca taabicoon ya la bokk an Xudayfa kooku jëlee ca Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qaal kunna inda Umar nee na am na bés nu nekk fa Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu jamono yooyu mooy amirul muminin fa qaal mu ne ayukum kan ci yéen samica rasul allahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallama yadkuru lfitan kan ci yéen moo déggoon yonente bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam bi muy tudd fitna ya maanaam ba muy waxtaan waxtaan woo xam ne ci mbirum fitna yi ci la jëm kon daal nee na danoo toog fa Omar ba mu yàgg mu posé ñu question boobu nee na kan ci yéen moo déggoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba muy waxtaane waxtaanu fitna ya fa qaala mu wax qawmun aw nit ñu ne nahnu sami'naahu ñu ne ko nun day dégg nañ ko ña fa toogoon ñu ne ko dégg nañ ba muy wax fitna ya fa qaala mu ne leen moom Omar la'allakum ta'nuuna fitnata rajuli fi ahlihi wa jaarihi mu ne ko ndax fitna ji ngeen dégg yéen mooy jim doon wax ci fitna ju dox diggante nit ka ak waa këram maanaam ay soxnaam ak i doomam wala ay dëkkandoom qaalu ajal ñu ne ko waaw fitna jooju lam déggoon noonu waaye Omar waxut jooja Omar waxut jooja moo tax ca beneen riwaaya ba dana leen waxu waxuma jooju fitna qaala mu ne leen moom Omar tilka tukaffiruha alsalaatu walsiyaamu walsadaqa mu ne tilka fitna jooje ngeen déggoon yéen muy fitnay nit ki ci waa këram ak ci dëkkandoom jooju fitna julli da koy far koor da koy far sàkk sarax da koy far kon jubluuma jooju fitna walakin waaye أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم kan ci yéen moo déggoon yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadkuru muy tudd alfitana allati tamuuju mawj albahr kan ci yéen moo déggoon yonente bi alayhi salatu wasalaam muy tudd fitna joo xam ne bu ñëwee day mel ni duusi géej maanaam fitna bu yëkkatiku bañ ne bii moo ëpp rek bu daanoo beneen fitna yëkkatiku bu ko ëppaat duusi géej bu tàng géej gi tàngoore dëgg dëgg defe naa ne jàllo xam ngeen te dara maanaam bu fekkee ne dem na gi ñu dafa mer duus yi di boo seenee wenn wuy jëróon nga ba agsi rek da naan wi moo ëpp doole bu ñëwee bu wàccee nga seenaat weneen wu ko mu ne fitna ju mel noonu laay wax kan ci yéen moo déggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi wax fitna joo xam ne daa mel ne duusi géej qaala xudayfatu xudayfa nee na fa askata al qawmu fa askata al qawmu euh, sakata buñ ko waxee mooy noppi na waxatul mooy tolloog saman samat samata mooy noppi na waaye nag boo ne askata mooy noppi na ba noppi boole ko ak yuur nag sëgg maanaam ñépp sëgg ni ceel kon li muy tekki mooy boobu question xamuñu ko fa qult ma wax man Xudayfa ma ko ana ma ne ko man mii maa dégg fitna ja xam ne day mel ne duusi géej qaala Omar ko anta lillahi abuuk anta lillahi abuuk waxiin la xam ne bu ko arab waxee day tag nit ki buñ la bu la arab ne lillahi abuuk mi ngi lay tagg ndax mooy sa baay nitu yow sa baay gis maanaam képp koo xam ne dañ koo askane ci ku màgg loolu màggal ko la moo tax askane baayam ci yàlla màggal baayam la koo màggal baayam kooku yaa koy yaa ngi koy tagg kon lillaahi abuka aw tagg la mel ni rek nga yàlla la yow day sa baay yàlla la ah yow yow day sa baay góoru yàlla mu ne ko anta lillaahi abuka qaala xudayfa xudayfa bañ koy wax fitna jim déggoon samitu rasul allahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam déggoon naa yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne yaquulu mu naan tooradu danañu gaaral wala nga ne danañu kole mooy taqal al fitnu fitna ya ala al qulubi ca xol ya maanaam fitna ya danañu ñëw di gaaral ci xoli doomu aadama yi kal xasiiri mu mel ne ak laltu maanaam ak batan loolu yi ñuy wax romb jaan ku xam nañ koy rabbe da xam ne benn bant la ñuy jël ràbb ko ba mu àgg ñu tegaat beneen rabbaat ko tegaat beneen rabbaat ko nee na fitna ya jamono dana dikk ñu gaaral ko ci xol ya ba mel ne ak basan gu ñuy ràbb uudan uuda bant par bant fa ayu qalbin ushribaha bépp xol boo xam ne fitna ya jaxasoo naag moom ba dugg ko wa ushribu fi qulubi fi euh, qulubihim al ajl comme ni mu ñëwee ci suratul baqara maanaam ushribu fi qulubihim xubbal ajl bëgg gañ bëggoon nag wa ba àgg ci jaamu ko loola dafa jaxasoo ak seeni xol buñ ne ushriba nangam jaxase nañ ko akub xolam mooy bëgg na ko ba mu seey ci biir xolam bëgg na ko bëggeel bu dee jéggi dayoo moo tax mu ne fitna ya danañ ko gaaral ci xol yi comme ni nga xamee ne noon la ak basan gi mel ci buñ koy ràbb mu nekk bant par bant loolu mel ni maanaa ci maanaa yi la am ñu ne fitna ya na muy gaarale ci xol yi mi ngi mel ni nit ki def mu ne ñëw tëdd ci ak batan bu nelawee ba jóg defe naa ne boo xoolee yaram ba looy gis da ngay gis jeexiti batan nga mu nekk uudan uudan ban ci batan nga nam meloon boo xoolee da gis màndarga ma ci yaram ba wala déet noonu lay mel nee na fitna yooyu buñ jàppee xol boobu ba bàyyi ko boo xoolee xol ya noonu la ñuy mel fitna ya dañ koy marqué mu ne nag fa ayu qalbin xol bu mën a doon ushribaha boo xam ne sol nañ ko fitna yooyu ba mu fees ko dell ba mu naan ca ba mandi nukkita nee nañu tomb nag fii ci moom nuktatun sawda nee na bépp xol bu naan ca fitna yooyee ba fitna yi jàpp ko day am tomb boo xam ne bu ñuul la wa ayu qalbin xol bu mën a doon boo xam ne ankaraha weddi na ko maanaam fitna yi ñëw na moom tàbbiwu ca bokku ca nee na nukkita ñi tomb fii ci moom fii ci moom nukkitatun bayda ak tomb bu weex xatta tasira ala qalbayni maanaam kee day continuer di naan ca fitna ja di am ay tomb yu ñuul di xol continuer di weddi fitne yi di ko jëñ di am ay tomb yu weex ba mu yàgg ñaari xol lay doon ala qalbayni ala abyada xol bu weex tàll misla safa safa buñ ko waxee mooy xeetu doj woo xam ne wu ratax lay doon boo xam ne dara du ca dugg lu mel ni marbre wala lu mel ni karo boo ca sottee ndox du dugg ci biir boo jëlee këriñ di ko ca bind du sotti fuñ ko nettoyé rek day weex tàll nee na xol boobu kon dem na ba weex tàll ba fit na mënatu caa dugg ah yàlla na yàlla muy boobu xol misla safa fala tadurruhu déeti ko lor fitnatun fitna ma daamat alsamawatu wal ard ne na xol boobu li fekk asamaan a ngi ci asamaan ak suuf ñu ngi fi fitna mënatu koo lor wa aaxaru nee na beneen xol ba beneen la aswadu nee na bu ñuul la murbaadan boo xam ne dafa ñuul kukk noonu lañ ko mën a fiyee kalkoosi mel ni ab kaas mu jax xiyaa boo xam ne dañ koo dëpp defe nag kaas buñ këpp boo ci bëggee sol ndox du sotti maanaam kaas bi kaas bi dëpp gimum gi féete suuf ñu ne la duy koog ndox ba mu fees booba kaas du fees mukk maanaam loo sotti mu tuur nee xol boobu noonu lay mujj mel ci aw yiw sotti ci aw yiw moo sotti ko ci kaas buñ këpp ñooyam moo sotti ndox ci kaas buñ këpp wala yaasu billah yal nañu yàlla musal ci boobu xol nee na nee na boobu xol laa yaarifu maarufan lu baax wala yunkiru munkara duutu bañ loo xam ne lu bon la maanaam xol la boo xam ne xàmmeetul lu baax ak lu bon maanaam duutu bëgg lu baax duutu bañ lu illa ma ushriba lu dul liñ ko nàndal min hawaahu ci bànneexam boobu xol ma bànneex rek lay xam kon fitna ji muy wax fitna ji yaatoo jaatu la joo xam ne ci mujjug jamono te defe naa ne soriwuñ ko nun ñii dafay dem ba àgg ci biir xolu doomu aadama yàqal ko mën naa nekk fitna joo xam ne fitna su subuhaat lay nekk ay lënt yoo xam ne da koy jaxaseel diineem ba indil ko ca sikki sàkka ba ngëm yàlla woyof ba caaxaan nopp ko ci wàllu ngëm yàlla wala biddaa nopp ko ba mu jublu biddaa fàtte sunna dem ba mu yàgg day mujj mel ne sunna ci boppam mooy biddaa sax biddaa fekk ko sunna fi moom noonu lay mujj mel kooku mooy fitnatu shubuhaat wala mu nekk fitnatu shahawaat muy fitna yoo xam ne bànneexu bakkan moo koy lal mooy bakkan ba lépp lu neex ci moom rek la xam xamul leneen ay caaxaan po pasar pasari xaalis yàqre ko fanaan ci ak mbon ay fecc ay musique ay làmb ay football ay caaxaan yoo xam ne yuy jëmul fenn la loola moo aju ca xol ba bu taxawoon di julli kooka jàng juróom benn aaya rek nga gis ko mu songalik benn tànk ba daal dina julli gi dafa yàgg te bu taxawoon di seetaan football mën naa taxaw quatre-vingt-dix bu buy soufflé ne match ba jeex na danaan lii moom Franc waragut a jeex léegi kon kooku mooy xol ba aju na nag ci caaxaan kooku mooy fitnatu shahawaat ñaar yooyu comme kat ba bàyyi la moo xam subuhaat yi la muy lënt yi wala shahawaat yi wala bànneex yi day dem ba nit ka xàmmeetul la baax ak la bon lam xam kay mooy la neex ci moom rek ni bakkanam bëgg daal la xam la muy amee loola moo ko ñor waaye xalaatul leneen loo ne lu weesu adduna la ak mu mën a wute adduna jooju loola pour moom baax na mu ko nettalee loolu ba àggal qaala xodayfatu xodayfa nee na wa nee na ma waxaat omar nee na ma ma waxaat omar dolli ko ca doon laaj ne ko anna baynaka wa baynaha baaban muxlaqa nee na ma ne Omar yow sa diggante fitna joojee am na bunt buñ tëj buñ dox bu dox ci sa digganteeg mooy mooy yow fitna jooje du la fi yow am na bunt buñ tëj sa diggante ak moom yuusiku an yuksara nee na bunt boobu damm ko tax soreetul maanaam daj ko bunt boobu dañ koy daj ji te daj ji nga soreetul ah, qaala omar omar ne ko ak kasran dañ koy daj laa abalak fekk yow de ku doy waar nga loolu beneen waxin la omar ne ko falaw annahu futiha su fekkoon ne sax dañ koy ubbi laallahu kaana yuaadu xëy na kon mu mën a dem ba mu yàgg ñu ubaat ko ndax bunt bi su fekkee dañu ñëw ubbi ko ndànk mu ubbi ko kon mën nañoo dem ba mu yàgg ñu tëjaat ko waaye su fekkee bunt bi nga xam ne bu xasee dajji ko rek fitna yi dañuy tuuru dañoo ñëw dajji bunt ba sànni ko fële ah, kon loolu bu mën a delluwaat gannaaw fitna yi day yokku rek parce que bunt la woon su fekkoon ne da ngaa jël géeju mbambulaan goo xam ne euh, mooy li ñu tudd moxiit muy océan dañ ko wutal bunt boo xam ne ca tefes ga dañ koo tëj bu ndox ma ñëwee foofa la yem boo ubbi woon bunt ba ndox ma di ñëw ba mu yàgg boo ko tëjee ndox ma yem foofu waaye boo ko dajjee sànni sànni bunt ba nag foofa ndox ma duutu yem fenn mu ne ko fitna jooju yow yow Omar sa diggante moom bunte ngi fi boo xam ne dañ koy daj bi te daj gi nga soreetul Omar ne ko ah dañ koy daj bi moom de suñ ko ubbi woon sax mënees naa am yaakaar ci ne bu yàggee ñu ubaat ko xultu nee na ma ne ko laa déedéet bal yukk soru dañ koy dañ koy daj bi waaye kenn du ko kenn du ko ubbi wa xaddastuhu nee na ma waxtaan ak moom ne ko ann dalika albaaba ne boobale bunt bunt boobee may wax rajulun waaye la joo xam ne yuqtalu dañ koy rey aw yamuutu wala day jékki-jékki faatu waaye kenn du ko rey xadiisan nee na muy waxtaan woo xam ne laysa bil <coughs> aqarir waxtaan la woo xam ne benn njaxas nekku ca maanaam lu ma xam la lu ma wóor la nee ma ne ko li ma ci jublu ci bunt bi ma xam ne bu tijjikoo rek buntu fitnaa tijjiku te fitna jooju du fi taxaw mukk nit la koo xam ne dañ koy rey ci jullit yi wala day faat Xudayfa lim jublu ci loolu mooy Omar ibnu Xataab ci boppam mooy bunt ba moo tax ci ci riwaayatul Buxaari daf ne wa kaana dalika al baabu Omar bunt ba bi mooy Omar ci boppam suñ ko rayee foofa la fitna di tàmbalee te dootu taxaw ci xeet bi fitna yi day continuer rek kon mooy bunt bi nga xam ne dañu koy daj li tax nag moo waxe noonu ne ko dañ koy rey wala day faatu Omar ci boppam xamoon na ne lii ñuy wax moom ci boppam la Xudayfa sàmmoonte ak moom bëgguta wax ne dañ koy rey loolu di naqaari Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu moo tax mu ne dañ koy rey wala mu faatu rek waaye Xudayfa amoon na yaqiin bu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kooku dañ koy rey waaye duwul ne day faatu te it Omar Xataab xamoon na ne Xudayfa lii muy wax pour lewetal wax yi léegi rafetal ko la waaye xamoon na ne moom la jublu te xamoon na ne itam rey lañ koy def kon noonu la mbir ma tëdd ci kanam Omar ibn Xataab moo tax ci riwaayatul Buxaari daf ne Omar ci boppam xamoon na ne moom mooy bunt ba comme ni mu xame ne guddik tey jii moo jiitu suba xamoon noonu la ko xame woon kama yaalamu anna duuna algadi leyla noonu la ko xoseyko waxee ci saxiixul Buxaari Omar xamoon na loolu comme ni mu xame ne guddi gii nu jëm moo jiitu bëccëg bii nu jëm kon Omar xamoon na ne moom ci boppam mooy bunt ba xamoon na ne dañ koy rey xosay ko itam xamoon na loolu waaye ñi toog ci ak di deglu ñoom boobu xeetu fitna xamuñu ci woon dara kon fitna ngi ñëw joo xam ne fitnay tuur deret la joo xam ne su xosee tàmbali fitna jooju du taxawati ba keru muy soob suñu borom tabaraka wa taala qaala abu xaalidin qultu li saad ya aba malik ma aswadu murbaddan qaala shiddatu lbayaadi fi sawaad qultu fama alkuur mujaxiyan qaala mankuuran loolu firi baat yi jàlloon rek la baat dan foofu def koo firee weexaay bu jaxasoo ko ñuulaay waaye li ci gën a wér mooy ñuulaayu kefe la loolu la ko boroom xam-xam yi firee ab kaas boo xam ne moom itam dañ koo dëpp wala dafa jeng ala kulli xaal mooy kaas boo xam ne boo ci sottee ndox ndox ma dutu mën a dugg ndax nam taxawee position ba mënta jël ndox kon xol booba noonu lay kon loolu doon xadis boo xam ne xadis bu doy waar la Omar ibn Xataab toog ci kanam am mbooloo ci saxaaba yi ak taabi'oon yi di leen laaj fitna joo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam tuddoon na ko ñu tuddal ko lenn ci ay fitna mu ne waxuma jooja yooyu fitna taxuñu ma may wax parce que yooyu fitna garaawul soo defee ay jaamu yàlla rek mën na ko effacé waaye fitna yi tax may wax mooy fitna joo xam ne bu ñëwee day mel ni duusu géej maanaam bu mujjee ñëw rek gën garaaw moroom kon jooja fitna mu ne fa muy tàmbalee day am ku ñu rey ci biir xeet yi te kooku mooy Omar ibn Xattaab kon ak faatoon ci la fitna daal di tàmbalee taxawaatul ba sun jonni tey jii gis ngeen deret yi tuuru ci deret yi jullit yi kon xadis bi day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii màndarga la muy wane ne moom mooy yonent bi effectivement dëgg dëgg moom mooy yonent bi parce que lii kenn mënu ko woon a xam ci ak nga tale ak njort am na lu bari loo xam ne man nañ ko ci jële ci fiq danañ ci tudd lenn euh, door a dugg ci buntub laaj yi ndax dafa xaw a takku tey te du ñàkk ñu ubbi tuuti déglu mbokk yi itam bi ñu jëkk moo di taaddudu anwaa alfitan allati taqaw fi axiri zaman wa hiya min algurbati almadkura fi alxadis ci mujjub jamono bari goo xam ne la dana ko bari loolu da danañ ko déggee ci xadis bi loolu nag moo tax bunt bi ñu tuddee ko buntu tumuranke ak lislaam lislaam dafa tàmbali woon tumuranke waaye beneen façon tumuranke la tumuranke woon mooy néew doole ak bari ay noon façon tumuranke boobu ba tey mu fi muy néew doole ay noon waaye beneen nag teguwaate bu yées mooy fitna yoo xam ne ci biir kër gi ci boppam la nekk ci biir jullit yi ñuy reyante di tuurante deret di defante yoo xam ne yu musul woon a xew ci diggante jullit ak jullit la kon fitna jooju ku xool ku nekk ci mujjub jamono da nga gis ne fitna ya bari na jéggi na dayo te yépp boo ko toppee dafay dellusi ci ñaari xeeti fitna yooyu borom xam-xam yi di ko waral di tudd muy fitnatu shubuhaat wa fitnatu shahawaat shubuhaat mooy lënt yi nga xam ne day yàq xol yàq jaamu yàlla yàq lépp loo xam ne li jëm ci njub la fitnatu shahawaat yàq lépp loo xam ne dafay jublu ci istiqaama muy jaar ci siraatul mustaqim ci sa wàllu yi yàqal la lépp loo xam ne sa jubluwaay la ci ni ngay fàggoo alal sa dund gépp mu gàttal sa gis ba nga defee ne àdduna rek la dund yam ba lépp li baaxal sa àdduna mu jaral la ko lépp loo jàpp ni boo ca duggee sa àdduna wàññi koo ca nga daal di daw loola donte wóor na la ne sax loola sa diine daf ci jëmee kanam kon kooka ci fitna yi nga xam ne nattoo nañ ko nitu jamono ci la bokk ñaareel ba ann alfitana baaduha ashaddu min baad fitna yi benn bu ci nekk dafay gën a tar moroom ja ci mujjug jamono loolu moo tax mu nuróole ko ak duusi géej yoo xam ne day ñëw bu mujj ñëw nga defee ne boobu mooy mooy bi ëpp doole moo tax ci beneen riwaaye dafa wax ne yu raqiqu baaduha baadan fitna yi bay mujj ñëw day tuutal ba ko jiitu woon fitna day ñëw nga jàpp ne lii fi la musiba mën a yem waaye meneen musiba ñëw far fàtte wala fàtte loola ma ko jiitu woon kooku euh, fitna dëgg la ann min alfitani maa tukaffiruhu salaatu wa siyaamu wa sadaqa am na ci fitna yi fitna yoo xam ne julli ak koor ak joxe sarax daf koy daf koy far maanaam xeeti fitna yi mooy yàlla yi nga xam ne dafa jëm ci njuumte luy dal nit ki te fekk ni mu ko waxee ci njëlbeen xadis bi li ko ko teg mooy fitnatu rajuli fi ahlihi wa jaarihi maanaam fitna ji nga xam ne mooy gaar nit ki ci diggante njabootam maanaam mën naa doon loo xam ne ak mbëggeel gum leen bëgg gu jéggi dayo la moo xam ay soxnaam la moo xam ay doomam la mën naa doon it ak càggante goo xam ne àgg na ci li ko war digganteem ak njabootam du ko def loolu itam fitna la yoo xam ne bàkkaar daf ci war wala sax ci digganteem ak ci dëkkandoom ci kaw di def lor joo xam ne day tege ci seen kaw te xeeti lor yi tege ci kaw dëkkandoo moom mën naa bari lool moo tax ku dëkk dëkkandoo ku nekk war ngay bàyyi xel sa dëkkandoo yëg ne yow dong du yow yaay dund ndax lislaam dafa bëgg nit ki fu mu toll fu nekk mu bàyyi xel ne ah moom kat ndeke nekkul ci kaw terrain bi moom dong di dund waaye am na ñeneen ñoom ci dendal dëkkandoo ji nga xam ne moom nga nekkal ci kër gi mu ne ci étage bi nga nekk koo xam ne da koo tiim nga xam ne yëngu boo yëngu lu tuuti tuuti rek day mel ne ci kaw ay noppam lañ koy defee kooku ngay kër kër yi guddi bëccëg say gone di daw di cëpp cëppi ngeen yor seen i toxat seen i yëf di dëbb fa tolloog fa dëkk guddi ak bëccëg loolu la sàkk ne lor dëkkandoo mi ngi ci jëfandikoo yoo xam ne tam day xeeyu di dugg ci appartement jàmbur te ñoom soxlawuñ lu mel noonu baaxut ci ñoom loolu laa fekk ne lor dëkkandoo gi ci tuur ay yëf yoo xam ne boo ko tuuree fa say dëkkandoo di jaar foofu lay jaar loola lor nga ci boo génnee ci biir yoon it ñan ñu ngay dajeel ñooñu say dëkkandoo lañ ci kaw yoon wi su ko defee bépp xaq boo xam ne waree su koo jalgate soo ko jalgatee bàkkaara nga ca kon loola nit ki da ko war a wattandiku ci diggante ñim dëkkal doon ay bokkam wala ñu doon ay soxnaam wala doon ay doomam wala moom gone gi kii doon baayam wala mu doon magam wala mu doon nijaayam lu mu mën a doon wala dëkkandoo rafetal moo jaadu ci diggante boobu waaye ay bakkaar a nga fa su góorgóorloo nag ba def lim man lépp waaye nag ay rëcc ci am na yoo xam ne mënu ca dara su ko defee loola bu jéggaloo boroomam def jëf yu baax loola dañ ko koy essentiel moo tax mu ne loola julli ak koor ak sàkk sarax da koy essentiel loolu mooy góor góorlu def lim man lépp waaye nag ay rëcc rëcc gaar na ko ci digganteem ak dëkkandoom digganteem ak njabootam su ko defee jaamu yàlla yi muy def ak naafile yi loola da koy effacé loolu waaye nag xadis bi firiwul da ngay def lu la neex sa digganteeg say dëkkandoo ak sa digganteeg sa njaboot boo noppee ne kon damay woor euh, julli joxe sarax su ko defee ñu effacé ma loolu déedéet maanaam da ngay góorgóorlu def li nga mën lépp ba àggal nag rëcc rëcc ya ñoom ngay jégguloo noonu ñeenteel la ann annaasa amaama alfitani ala qismayni man ushribaha wa man ankaraha doomu aadama yëpp ci kanam fitna yooyu ak lu ñu rëy rëy ak lu ñu bari bari ñaari nit rek moo ci am man ushribaha mooy ci jël fitna yooyu nangu ko dund ko mu tàbbi ci xolam mu fitnaal ko ak ki nga xam ne xolam dafa lànk fitna yooyu nangu caa bokk loolu nag kenn ku nekk yow yaa mën a àtte sa bopp ndax fitna jooju dugg nga ca wala duggoo ca ak ba nga ca duggee foo ca yem ndax da ngaa ba ca biir wala da nga caa cof wala dalaa gaar te tëyoo ko nga gaaw génnaat nattul sa bopp ci fitnatu subuhaat lënt yi ndax jéem ngaa góor góorlu ba li ñuy wax tawxiid muy wéetal sa boroom nga xam lan mooy xaqi sa boroom ci sa kaw nga fas ko yéene wéetal te lenn lum yeyoo jëloo ko jox ko kenn soo defee loolu kon yor nga ci benn xaaj bi ci nga bokk mooy ñi nga xam ne lànk nañ fit fitna ja su fekkee ne nag da nga ne ah tawxid dawaay moom bunt la boo xam ne euh, nekk di ci gëstu ak coono rek la te itam day tàqale nit ñi sax boo duggee di wax ci aqaid yi ak pas-pas yi naan ñii seen pas-pas wér na ñii seen pas-pas wérut kon nañ bàyyi nit ñi rek kenn ku nekk sa boroom su fekkee ne noonu ngay gise jàppal ne fitnatu subuhaat mi ngi tàmbalee dugg ci sa biiru xol waliyaasu billah nattul sa bopp bala neexee ci buntub ak sunan wal mubtadaat sunna yi ak biddaa yi ndax yaa ngi jéem a góorgóorlu pour xàmmee la dëppoo ak sunna ci xeetu jaamu yàlla ya ci xeeti pas-pas ya ci xeeti jikko ya di ko jéem a gëstu di ko xam di ko dund su fekkee ne def nga ko bokk nga ci ñi nga xam ne mucc nañ ca fitna ya su fekkee ne nag dangaa jàpp ne euh, biddaa moom <coughs> biddaa yëpp daanaka bu ci dékkul mooy yàlla bu fés rek <coughs> daanaka bu biddaa ndax bu rafet lay doon te biddaa bu rafet kenn mënu caa mucc su fekkee ne noonu ngay xalaate commencé nga di nandal sa xol ci fitna yi su ko defee loolu fitnatu shubuhaat lay tudd su fekkee ne nag ci fitnatu shubu shahawaat la ba tey mën ngaa natt sa bopp ndax su fekkee ne toya ak caaxaan ya moo xam làmb la moo xam football la moo xam ne yii fitnaal nit ñi ci jamono ji jaral naa la bàyyi lépp loo doon def ñëw toog ca kanam écran ba waxtu julli sax mën naa jot doo yëg julli jot na kon jàppal ne fitnatu shahawaat mi ngi dugg ci sa xol su fekkee ne nag loola yëngalu la mënta soppi sa programme yaa nga ca sa téere yaa nga ca sa xam-xam yaa nga ca say yaa nga ca sa liggéey yow diwa ngay bëre diwa ngay football def nangam loolu yëngalu la yaa nga ca la nga nekk sottiwul sa programme tey ba nga sant yàlla te xam ne fitnatu shahawaat muy bànneex yi yaa nga ciy mujj mën nga cee natt sa bopp boo génnee ci mbedd mi ak la ngay dajeel ci xeeti càggante jigéen ñoo xam ne daanaka soluñu ay sér di dox ci mbedd ndax soo xelmatee loolu dal ngay damm sab gis wattandiku lu mel noonu soo ko defee day bokk nga ci ñi nga xam ne yaa ngi jaar ci yoonu mucc gi fitna wala danga ngaa bokk ci ñi nga xam ne fu seen bët xool ñu delloowaat ko fa wala ñu téye ko fa mu bañ faa jóge su fekkee ne noonu ngay def day kon jàppal ne fitnatu shahawaat mi ngi tàmbalee dugg ci sa xol kon kenn ku nekk yaay jéem ma yar sa bopp jéem a tàggat sa bopp ba ñaari xol yooyu nga xam ne faaw nga yor ci benn nag faaw nga yor ci benn nga jéem a lu ba sa xol nekk bi nga xam ne bu gisee fitna da koy bañ bu gisee ak mooy yàlla da koy bañ bu gisee ay da koy da koy bañ wa ida marru bi laxwi marru kiraama suñ rombee lépp loo xam ne xeetu caaxaan la rek dañ koy woon gannaaw duñ ko duñ ko faale bokk na ci an alhawa yuaddi ila ama alqulubi wal afham wa yamnauha min qabuli alxaq bànneex bànneexu bakkan bu xasee ba dugg ci ab xol xol ba day filmaxa dégg-déggu nit ki sax day filma xam maanaam duutu comprendre duutu xam duutu mën a xam li baax ak li bon te it dëgg su teewee tam du ko mën a nangu ndax am na leneen lu ko muur loolu mooy bànneexu bakkan bànneexu bakkan boobu boo ko seetloo moom itam ñaar yi ma waxoon rek ci lay dellu benn ay lënt la wala ay bànneexi bakkan ay lënt wala ay neex neex ay lënt wala ay neex neex kon bànneex bu demee ba muur xol ba wala iyaasu billah mooy tax ka nga gis muy dund diine nga ne kii ci ay caaxaan la nekk ka nga gis mu nekk ci ay caaxaan nga ne kii moo baax parce que say nattukaay baaxatul sa seetub xol bi nga xam ne dafa waroon a leer ba la muy wane nam mel la mel seetu boobu dafa lëndam ba boo xoolee leneen ngay gis lu bokkut ak lam lay won ndax xol dafa mel ne dafa mel ne ab seetu lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la rek day tax seetu boobu di gën a leer xam nga ne ab seetu lu mu gën a leer lim lay won day gën a doon dëgg waaye lu mu nag lam lay won day gën a soree ak dëgg kon suy jaamu yàlla xeetu baa ngay gën a leer waaye suy dugg ci ay lënd wala muy mooy yàlla seetoom baa ngay lëndëm moo tax nag day dem ba seetu ba lëndëm ba faf duuti gis dara su ko defee kooku dundam gépp ci làmbatu lay wéy kooku mooy xol boo xam ne dafa gumba ànd ak xel moo xam ne dafa nëx loolu moo koy mujj dal loolu la ñuy tuddee xel mu say mi xel moo xam ne dafa dem ba mu yàgg mu say mel ne meññeet moo xam ne dafa say mi lu say mooy loo xam ne dafa dem ba àgg ca meññeet ba fa mu war a ñoree rek jékki-jékki rek lax tuuti nanguutu la màgg daal di yem foofa am na ñoo xam ne seeni xel loolu daf koo gaar te fekk bànneexu bakkan moo ko waral moo tax soo toogoon di ko expliquer ren ba déwén pour ne lii moo baax ak lay wi ngay indi lu mu leer leer xamut xamut loolu mënu koo comprendre am na ñoo xam ne seenu lay ci diine fa mu mooy gis naa sëñ diw sàngam mu def nangam foofu la yem soo ko doon expliqué lii la alxuraan wax lii la yàlla wax fii la mbir yi jaar danaan loolu nga wax lépp su amoon kon sëñ diw du def nangam foofu la xam-xamam ko faa jëlee nag kon kooku na mënatoo fexe ba mu comprendre foofu mu ba dem na xol ba ci boppam muuru na parce que bànneex ak topp bànneexam moo ko moo ko muur am na ci ñoo xam ne dañ koy wax ci kaw ne dañoo gën jëmm dañ jàpp ne kii di def lu lu dul noona am na ci ñoo xam ne dañoo topp seen bànneex nag làq ko jëmm ja te loolu da koy bari loolu nag ci nit ñoo xam ne gëmuñu dara gëmuñu kenn waaye xam nañ ne lii occasion la boo xam ne suñ ne làqu naa ci gannaaw diw sàngam lu ñu yëngal rek ñu ne diw sàngam nee na nàngam làqoo wala jigéen joo xam ne day def yaramu neen di dox ci mbedd boo ko waxee ma ne gis naa soxna sëñ diw sàngam kat muy xeesal gis naa ko itam mu takk ay mees gis naa ko mu def nangam déglootul yàlla nee na déglootul yonent bi nee na lam xam daal mooy soxna sañ diw sàngam wala diw sàngam def na nangam loolu ci xeesi bunti bànneexi bakkan yii muur xol yi ci la bokk te loolu faaw nit ñi nag ñu xam ko xam ne diini lislaam ba ko yàlla di wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko wax ne lii moo baax sa xeet wi nañ ko def lii moo bon nañ ko daw loola borom bi tabaraka wa taala ko woo ko woon ak la sëñ bi diw di def ak la muy bàyyi waaye sëñ ba nga xam ne la muy def ak la muy bàyyi moom lañ considéré ci l'islam kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moom jëfam wa ma aataakum rasulu fa xuduuh lépp lu leen andi jël leen loola wa ma anhu fantahu lépp loo xam ne tere na leen ko na ngeen ko bàyyi kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul kooku nag loolu yi dalaa war maanaam topp yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci li muy jëriñoo ci xadis bi ilmu xudayfata bni lyaman radiallahu taala anhu bi tafasil alfitan min ixbaari alnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahu bi dalik xam-xam bu xóot bu yaatu bu détaillé boo xam ne xudayfata bni lyaman am na ko ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu fitna ma taxaw fadilatu bil yamaan dañ doon wax ne mooy e, ki xam secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax daf ko doon xabaar yoo xam ne du ko wax ñëpp ko doon wax yoo xam ne du ko wax bokk na ci xamal gi mu ko xamaloon naafiq yi ak seeni tur te xamalu ko keneen ku dul moom xamalu ko keneen ku dul moom moo tax fitna yi nga xam ne ay secret la ay yu doon bëgg a am yeneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boroomam wax yu ko ko ba mu xam détail ya mu wax ko Xusayfatu bnul Yamaan mu garde ko nit ki nag loolu euh, du caa gën ñëpp a mën a am loolu ndax ki nga xam ne moo nekk alqaid wala mu doon njiit nit ñi ko wër kenn ku nekk dana xam fa nga mane fa nga mane loolu moo tax njiit ci boppam yombut nag ndax bu fekkee njiit li xàmmeewul ñi mu jiite kenn ku ne la nga mën mu féetale la loola kooku matatul njiit ki nga xam ne ab soldaar la boo xam ne jàmbaari sàkk tëdd la mu jiital ko ca kanam jar ba mu jiite ñooña ki doon xalaatkat boo xam ne politique la xam ak jaar ci ay sew sew mag noonu demee mu teg ko ca place booba ki nga xam ne denc sectari la man lu mu xam mën na koo garder du ko génne mukk te dañ koo aajowoo kooku mu féetale ko foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la doon dunde moo tax Xudayfatul Yamaan daf ko joxoon turi naafiq yi te it saxaaba yi xamoon nañ ne jox na ko moo tax Omar ibnu Xattaab mas naa dajeeg moom ci mbedd poñe ko ne ko du ma la bàyyi te waxoo ma ndax ci la am déet mu ne ko bokkoo ci waaye nag du ma ko waxaat keneen bokkoo ci waaye du ma ko waxaat keneen la kon euh, xamoon na ko ne moom donte Omar ibnu Xattaab radiallahu taala anhu ni mu xamee boppam waroon naa xam ne bokku ci waaye ginnaaw ay naafiq am na te ñu ngi ci dëkk bi te yonente bi alayhi salaatu wasalaam xamal na ko jëmm jooju mu dajeeg moom ne ko bala ma la bàyyi tey da ma wax ndax man tudd nañ ma mu ne ko kenn tudd la ci yow waaye nag laa aquluha li ahadin baadak du ma ko waxaat keneen mukk na ak ku ma ko mën a laajat man foofu la yem ndax bunt bu ko ubbee bu soobee yàlla bu subaa nga gis taxaw kenn ku ne ne ko bala nga fay jóge danga ma wax ndax kilaa laa bokk wala déet moo tax mu wax ko ko ba noppi daal di tëjaat bunt boobu kon kooku mooy xasabatul limaan borom bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dénkoon na ko kon lépp lu aju ci détails fitna yooyu nga xam ne mooy yi am moo tax mu tuddal ko fitna ji fa muy tàmbalee ci jëmm joo xam ne dañ koy rey te jëmm jooju mooy Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala ko reyee buntu fitna tëjewaat dutu yomb kon noonu mu ko ko waxee woon noonu la amee danañ ci jëriñoo wujubul firaari min al fitan ala qadri al wusi wa na ci bépp jullit bu mu mën a doon bu xëyee muy daw fitna muy daw fitna fitna yi ay lënt fitna yi bànneexi bakkan fitna yoo xam ne ci diggante dund nit ak nit sax la ndax li mën a andi fitna dafa bari xam nga yi xew nii tey nga xam ne nit mën naa jékki-jékki rek taxaw ne damaa soxla nangam te fasuma yéene dellu sama kër te jotuma te ci wàllu politique da ngay gis bi mi ngi bëgg a tukki ndax da li tuuru ci at bi ñu génn ci dereti jullit ci kaw suuf ci ay mbooloo yoo xam ne dañoo génn ne faw rek ci doon atte xeet yoo fi jógee su fi jógewut rek lu nekk mën naa xew ñuy tuur ay deret guddi ak bëccëg loolu ci fitna la bokk te yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne woon ay fitnaa ngi ñëw yoo xam ne yoo xam ne képp koo xam ne génn nga dogale ko yaa ciy jëkka loru waxaat ne képp koo xam ne fekkoon na la ngay dox na nga taxaw bu fekkee nga taxaw na nga toog bu fekkee nga toog na nga dugg ci biir kër toog kon loolu mooy daw leen fitna waaye am na ñoo xam ne bu ñu nekkoon ci seen biir néeg ñu ne fitna ja tàmbalee dañuy génn ci ëtt bi bu ëllëgee ñu génn ci penc ma bu ëllëgee ñu génn bokk ci biir fitna ji kon fitna ci boppam def koy daw waaye suñ ko jublu tey ñëpp sàkkul ko seen bopp kenn xamul fu muy yem te kat fitna yooyu tàkk kenn xamagul fu mu jëm fayagul moom réew ya fitna ya ba tey fitna yaa nga continuer di tàkk wala yaasu billah kon lii lend la loo xam ne mën nañ koo jëriñoo ci xadis xobeysa boobu muy xadis boo xam ne bu màgg la defe naa ne ñu def ay minutes yu néew kon ci laaj yi nga xam ne mooy laaj yi kayit yi suñ noppee jox mbokk yi incha allah ñu laaj leen ci ay question moom itam yii di ci yoo xam ne tontu woon nañ ko ci bi weesu kii dafa laaj mu ne ndax dagan na ñuy dajaloo di jàngal alquran ruuxu néew bi wala tabax kër moom itam ba noppi dajale nit ñi ñuy jàng alquran nga door a sanc kër gi saxul ci alquran saxul ci sunna saxul ci dunduk saxaaba yi nit faatu ñu génn di ko jàngal alquran te lépp loo xam ne saxul woon ci diggante boobu xamal ne bokkul ci diine ji nit ñi ñoo ko defal seen bopp waaye bokku ci te jàngal nit ci alquran ci jëmmi boppam koo xam ne dafa faatu loolu ci boppam doon na loo xam ne kenn mënu koo firi ndax ñu koy jàng dañoo yéene ne du alxuraan bi lañ koy jàngal waaye ginnaaw boo jàngee alxuraan da am ab yool dañoo bëgg suñ ko jàngee ba nag may ko yool boobu moom moom néew bi loolu ci boppam doonut loo xam ne lu sax la li sax mooy ñaanal ak néew te ñaanal ko mooy jullee ko jullee néew dangaa defe ne julli gi dañuy fàtte ne mooy ñaan bi saa boo kàbbare kàbba bu mujj ba ak ñaan bu gudd gudd gudd la mboolem ñu koy jullee ànd di ñaanal te ñaan googee da koy jëriñ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne amul kenn koo xam ne dana faat am lu mat ñeent fukki nit yoo xam ne duñ bokkaale ñeent fukki nit yoo xam ne duñ bokkaale ñu ànd taxaw ci gannaawam jullee ko ñaanal ko lu dul yàlla jéggal ko kon loolu lu rëy kon fépp foo xam ne dégg nañ fa jullit boo xam ne bu faatu la te doon góorgóorlu ci diineem jaadu na mbokk yi gën a yaakaare tawxiid ñu dajale dem ànd ci julli googee ndax borom bi tabaraka wa taala jéggal ko kon jullee gi ak ñaan la suñ ko sóolee ba àggali dafa nekk mooy jéggalu ko jéggalul ko yal na ko yàlla jéggal ñaanal ko mu dëgëral aw ndax te jamono yooyu ñu ngi koy laaj yaar yooyu rek la fa yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale loolu nag buñ ko yemee jullit yi dañuy defe ne loolu dafa simple wala dafa niiw xeet xeet ak jaamu yàlla nag dafa doon cosaan ci jur biddaa bul fàtte mukk ne ñi ñëwoon ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ay jaamu yàllaam ñu wax leen ko dañ koo xeet riwaaya daf ne fataqaaluha nee na ñu ne ah lii de dafa néew biñ leen nettali yonente bi alayhi salatu wasalaam bu nekkee ci këram nan lay jullee ay koor yi ngàtt nga am nan la mel biñ leen ko waxee baagal ñu ne daal loolu dafa néew waaye noonu bokku noog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañ koy jéggal ay bàkkaaram yu jëkk ak yu mujj ñu ne kon nan def lu gën a diis loolu kenn ci ne man day damaa fas yéene di woor te du ma dog ki ci des ne man de fasuma yéene takk soxna ki ci des ne lan hmm? day fanaane julli waaye duutu nelaw ba faaw di xabaar bi afee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne leen yéen a wax loolu man day maa leen gën a ragal yàlla te damay julli di nelaw di woor di dog di denc itam ay soxna daal ne nag ko man raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ne da ngaa bëgg leneen lu bokkut ak sama sunna kon bokkoo ci man kon dama seeti feneen foo bokk waaye bokkoo fii kon liñ bëgg a wax foofu mooy xeeb xeeb ak jaamu yàlla mooy waral nit ci sos ci diine lu ca bokkut néew ba faatu na diine nee nañ ko sang càngaay lu tegu ci yoon bu noppee sàng ko càngaay lu tegu ci yoon lu dëppoo ak sunna buñ noppee woo mbokki jullit yi am tawxiid ñu ñëw ñoom yépp ànd jullee ko ñaanal ko loola mooy ñaan ga jullee gi ci boppam mooy ñaanal ga su loola noppee ñu ànd ak moom ba ci armeel yi ñu suul ko suul bu normal bu tegu ci yoon buñ noppee ka jiite mbooloo ma ne leen kët jéggalul leen ko istaxfiru li axikum wasalu lahu tasdiq fa innahu al aana yusal loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam daan wax jéggalul leen seen mbokkum jullit ñaanal leen ko yàlla dëgëral aw layam ndax kat malaayika yi tàmbali nañ di ko laaj xaar loolu su suñ noppee ca loola noppi nañ ca mbir ma daal di ñibbi kon loolu simple yu réeréeréy la yu dajaloo yoo xam ne defal nañ ko waaye nit ñi nag jàpp nañ ne loola daal suñ ko defee faw war nañu jàng foofu ay xulwa war nañ faa jàng nangam war nañ faa séddale ay dog war nañ faa def yoo xam ne kenn xamul fu jóge ci àdduna xeeb la lislaam indi woon loola mooy waral ñu dolli ca leneen lu ca bokk kon fataqaalluha ja amoon ca kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ñooñu di laaj mooy jël si waat ca armeel ya te bu dikkee yem ca armeel ya danañ naan bu gis ba jël see nañ def nangam def loo xam ne lislaam santaane wu wala ñetti fan ya nañ def nangam indi ko loo xam ne sharia santaane wu bu amee quarante jours nañ def nangam loo xam ne lislaam santaane wu boo wattu sax ñu jëlal ko boo xam ne saa bu delsee ci at ba ñu dajewaata ci defal ko dara yooyu yëpp doon ay biddaa yoo xam ne baax ko baaduha fawqa baad zulumaatun baaduha fawqa baad ay lëndami kese la yoo xam ne yu tege loola bàkkaar lay julal ka koy def te ki nga xam ne moom lañ koy defal di ko ci yéene itam dara du ko ci am ñu del waat ci jàng alxuraan ba noppi ni yool bi dama ko yéene diw yool ba xamagoo am naam ndéet ndax yow li nga def sa jaamu yàlla kenn xamul nangu nañ koom ndéet moo tax saxaaba yu baax ya daan wax ne su ma xamoon ne yàlla nangul na ma ak jaamu yàlla kon danaa gaat nga faatu ndax yàlla nee na ki muy nangul mooy ku ko ragal innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ka muy nangul mooy ku ko ragal te ku ragal yàlla tàbbi àjjana ne kon fii fi àdduna daanaka ku mu wóor ne da ngay tàbbi àjjana defatoo fi dara kon ñooñu dañ doon gaat nga ci at mi ñu nangul leen ci sax jenn jaamu yàlla boo kon ku toll ci position boobu booy nattable at mi ndax jenn jaamu yàlla nga fi am guñ nangu kon kooku doo man ne li ma jàngoon ci alxuraan te yaakaar ne nangu nañ ko may naa ko diw sàngam foofu kenn nekkut foofu waxuma laa nag li nga doon def mu wóor la ne lii saxul ci dundu saxaaba yi ak taabi'un yi waaye biddaa rek lay mën a doon kii def na benn waaye gi boo xam ne dafa ànd ak soxnaam Euh, loolu moom kër gi ñaari laaj la boole woon beneen bi mooy euh, tabax kër ba àggal di ko sanc wala defar kër ba àggal di ko sanc dajale fa nit ñi ñuy jàng alxuraan loola itam lañ ci waxoon rek moom lañ cay wax mooy moom itam doonut loo xam ne lu sax la booy dugg kër gu mu mën a doon yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na waxal ne audu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq képp koo xam ne wàcc na ci wàccuwaay bu ne wàcc na fi béréb wax ko yàlla dana ko xam ba kër mu jóge foofu kon booy dugg ci kër gu mu mën a doon waxal loolu moo xam da nga koy sanc moo xam sancoo beneen ba sopp nañ di jàng suratul baqara ak ali imran ci kër ndaxte ñoom ñaar seytaane attanu leen soo leen mënee di jàng wala say gone di ko jàng wala nga koy tëj ca kasa ba di ko jàng loolu fonk nañ ko waaye yëmul nag ci sanc yëmul ci ab sanc waaye nañ taxaw di ko jàng lu bare bare bari ca kër ga ndax loolu day dàkku seytaane waaye bu yem ñaari saar yooyu it nag kër daa war a doon daa war a dund ci njàngum alquran kii def nag bu fekkee waa ji dafa ànd nag soxnaam waaye àggul ci ànd ak moom ci sëy te it dara génnewul ci moom ndax ca ngaay da koy war déedéet bu fekkee ne àggul ci li muy tuddee sëy ba noppi dara génnewul ci moom kooku ca ngaay da ci war maanaam su su àggee ci li ñuy tuddee sëy daal ca ngaay war na su fekkee dara génnewu ci moom it bu fekkee man niñu la su fekkoon ne agul ci te it kon sangaay da koy war ba tey li ñu tuddee limitation de naissance moo planning dañoo xaw a bokkuñu mooy taxdiidu nasl ak tanzimu nasl muy organise wàllu njur njuriin ak limité jur ci boppam organiser ko mooy soreele ko limité ko mooy yemale ko fa duutu am maanaam duutu jub lu ci nekk nag sharia mën na koo nangu mën na koo bañ itam luy tax mu nangu ko mooy su fekkee dem na ba munta ñàkk ci wér gi yaram gi maanaam nit ki dem na ba wér gi yaramam xam nañ ne kii kat su juree njur mu jege mën na koo lor wala mu lor doomam bu boobaa sharia nee na na ko soreele moo xam nag mooy bu mu jëfandikoo ba soreele ko na seet la gën ci wér gi yaram wala mu tane ca ne yu bari yu ñu jëfandikoo sax ci yu soreele moom day lor wér-gu-yaram waaye na seet lam jàpp ne moo ca tane bu di gisoo ko docteuram bu ñu wóolu mu ne ko nangama ci tane mu ne ko kon mën nga mu ñaari at mu toog ñaari at yoo xam ne da koy nàmpal doomam waaye na fekk wér-gu-yaram tax su demoon ba docteur yi ñu signé mu wóoru ci xabaar bu leer nañ ak i yu taxaw ñu ne kii bu amatee doom bakkanam xaj na ci su boobaa lislaam may na ko mu bañatee am doom ndax ni ko borom xam-xam yi waxe al ibratu bil mandur la bil muntazar kooku qaayida bu ñu jëfandikoo la bu baax mooy la fa teew garde ko garde la fa teew di dund moo gën a yey di wuti leneen loo ca dolli ba foofu lépp ànd dem beneen faf ah yaay jaa nga fa woon di dund ngay jéem a wut keneen ca dolli ba yaay ja dem nag kooka musiba la kon bu fekk ne loolu ci xam-xam bu wóor la teg foofu la limitation mën a amee waaye nag li nga xam ne noonu la ñeneen ñi di xalaate jàpp ne nit ñi suñ baree dañ duutul am luñ dundee diisutu leen mën a yar moo tax nañ leen néewal woowu xalaat la woo xam ne dafa juunu maanaam dafa juuyoo ak tëraliinu lislaam lislaam nanguwut loolu xalaate noonu jullit bi ni muy xalaate mooy wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha lenn lu nekk ci kaw suuf di dukkat lu dul suñu borom tabaraka wa moo gàddu wërsëgam lu mu mën a doon nag maanaam lu juddu lu ne borom bi tabaraka wa taala moo war lu war sa gëm kon bari na ñëw néew na ñëw loolu lépp ay wax caaxaan la te boo xoolee loolu dafay mën a leer naññ naññ ci ci ci mbir yi boo gisoon yi nga xam ne dañoo sukkandiku ci doomu aadama doomu aadama yor leen yooyu ñooy dem ba xiif wala ñu sonn wala lu róog loolu waaye yi nga xam ne yàllaa leen yoral boppam nekkuñu ci loxo kenn doo dox mukk ba dajeeg kéwal bu tëdd ci àll bi ñu ne kii dafa loof maanaam amatul lu mu lekk ba dafa tëdd nga xam ne dañuy war a ñëw xont ko mu door a jóg dem moom kéwal googu nga xam ne ci àll bi la dëkk wala lëg googu ñu ne dafa xiif parce que amatul lu mu lekk amul parce que kenn gàllagóoru ko dañ ko bàyyi rek mu dugg ko kaw suuf si di lekk yow nag li nga jël yeew ko ci kër gi di ko xont amaana di ko liggéeyloo ba noppi li nga koy jox doyut mooy tax mu dem ba mu yàgg mu loo néew doole ñu ne amatul xont amatul nang fekk yaa ko yeew waaye suñ ko bàyyi woon ak boromam wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha la seen mbir demee ku judd ku nekk nañ ko jàngal yar ko bàyyi ko boromam mu dem liggéey am lu mu dundee li baaxul mooy tayeel maanaam askan wi suñ nekkoon lim bu néew te nanguwuloo liggéey amuñu jom dañuy xiif lu ñu bare bare bare bare bari te nangoo liggéey am jom xiif du leen gaar loolu ci ñuy xalaate xalaatu xiif ak bari dañoo jàpp ne bari ak xiif ñoo ànd néew ak regg ñoo ànd waaye ànduñu chinois yi ñaata lañ fi nekk Hmm? ëpp dañ milliard xam ne daanaka bu ñu defee adduna nangami xaaj ñoom ñooy benn bi cër déggagul ñu ne ab xiif am na foofa boo xam ne dañuy dem di leen xett li di leen yóbbul ab dund kenn déggagu lu tax mooy ñëppay liggéey ku juddu rek da ngay liggéey waaye su fekkee aw askan fukki million lañ comme nun juróom-ñaari million yi bëgg a wëlbatiku nag nga toog ci ko ñetti million yi di leen yóbbaale faaw xiif am doo dem benn waay mooy liggéey ci kër yi fukk nga fi ñoo xam ne kenn ku nekk moom lay xaar kenn deful dara du dem day mel ne kuy yéeg ne ko benn waxkat ba doon waxee day mel ne kuy yéeg ci dara ñii kii ngi jàpp ci mbumi ki jàpp ci tànk bi kii jàpp ci na muy fecc ñuy fecc ñooñu sax day bu yàggee day daanu rek fekk si leen waaye du dem parce que demuñu su ñëpp àndoon yéeg nag dem ñëpp mën nañoo kawe kon li am solo mooy xale yi nañ leen jàngal nañ def ci ñoom jom nañ leen fexe bañ doon ñoo xam ne dañuy def ci seeni xel ne ñoom kat ngir war a mën a dund dañu war a mën a liggéey waaye duñ sukkandiku ci kaw kenn ku dul seen borom tabaraka wa taala a nekk ci ñëpp soo gisee ku la dimbali ci dara nag alhamdulilah lii lu baax la waaye da nga gis nag mu ne yéen la man de vingt cinq ans a amagoon damaa nekk sama kër baay nangam ak nangam su fi indee sama soxna sama baay sax moo yoraale ñun ñëpp waaye daf may jox ay condition yoo xam ne daal su ma dëkkee ci kër gi coow li day bari nan laay def li ma ko jub mu am vingt cinq ans léegi di daa waroon fekk nga samp sa kër yow di yóbbaale ñeneen waaye boo bëggee rek sa sa papa moo yor ñu toll noonu vingt cinq ans vingt six ans ba trente ans ak seen i soxna seen i doom yéen ñëpp ngeen nekk ci seen biir kër papa dajaloo fa njaboot bi di xuloo coow li jàpp fii jàpp ca kaw loolu doonul lu jëm ka nit ki day teel a def ci xelam ne moom ñii daa war a samp kër daa war a yor ak njaboot dafa war a yëngatu dafa war a yilif ñeneen dafa war a dimbali sax ay parents moom ci boppam waaye du séentu ne day def yàgg rek continuer di dem jamono ji nag gone yi dañoo àgg ci maanaam xaw ma nasax lañ koy tudde xaw ma dañoo tàmm daal loo xam ne mooy sukkandiku ci nit li ngeen di wax lu yomb dañoo bëgg lu yomb euh, moo tax dañuy wax ne teel a sukkandiku ci yàlla sukkandiku ci sa bopp lu am solo la même boo ko seetloo garab gi ngay jëmbat gi nga xam ne da nga koo samp boole ko ak bant dana màgg màgg màgg bëre yi nga door a mën a dindi bant lu dul la soo ko dindee rek mu daanu waaye su fekkee da nga koo samp bàyyi ko noonu ngelaw li di ñëw muy jéem di màgg ngay sotti ndox rek muy màgg diir bu gàtt rek ngelaw dootu ko mënal dara parce que day tàmm sukkandiku ci boppam nit tam noonu la mel ki tàmm wéeru ci nit du demal boppam mukk moo tax léeg-léeg bokk na ci dimbali nit ki nga xaj ko dara ndax mu góor góorlu nga di ko ko xëy mu soxla dara ngeen ko déedéet loolu mënta nekk mu ne xaaral ma ñëw def li mu def ba am man itam su ko defee jom daal di tàmbali juddu kii dana nit la koo xam ne diggante bi mu amee fukki at ak juróom-ñett maanaam dix-huit ans ba ci vingt-six ans daal nekkul di julli léegi nag dafa bëgg a tuub mu ne nan lay fay julli yooyu nga xam ne dañoo wees su tuubee na rafetal ak tuubam te fas yéene li ko deset ci ak julli mu bañ cee sàgganati di ko julli ca waxtu wa di ko sellal te bari lu muy naafil la waaye julli yooyu ko faat kat sharia néewu ko na ko fay julli yi ko faat tam tey ko nga xam moo taxoon su demee ba yàlla baaxee ko mu tuub kon na fexe ba julli yooyu mu fare ko ay naafila yu bari ak sàmmonte julli yi nga xam ne mooy farata su ko defee càggante googu ya mu jaaroon borom bi tabaraka wa taala dana ko ko jéggal yooyu ay laaj yu jàlloon la su fekkee microphone bi wala ñu continuer ci kayit yi rek hmm? lii ko ma internet bi ah. lépp ne kii nee na ndax ngénte ngénte gone gi ci juróom-ñaareelu fanam lay doon wala ci juróom-ñetteelu fanam xadis yi ñëw yépp fi yowmi saabiihi la wax rahmatullah xadis yi ñëw yépp dañ ne ci bisu juróom-ñaareel bi ci la ñuy ngénte gone gi bisu juróom-ñaareel nag buñ ko waxee bis ba mu juddu dam ko cay waññaale bis ci lislaamit mooy bu jant bi soo bis tàmbali na bu jant bi tàmbali na ba keroog jant bi soowaat ci maana fii nu toll nii jant man bëgg a so noo ngi yendu nii ci talaata wala déet mardi lañ yendu bu jant bi soow rek àllarba dugg na maanaam jant bi fu mu soo laylatul arbia la wax guddik àllarba kon ki juddu gannaaw bu jant bi soo rek kooku àllarba la juddu kon kañ mooy juróom-ñaareel fanam talaata ku ne altine altine mooy juróom-benneelu fanam waaye talaata muy mardi bi mooy juróom-ñaareelu fanam ginnaaw àllarba ji la juddu mardi mooy nekk juróom-ñaareelu fanam kon loolu nga jël ko mu nekk benn règle générale boo xam ne nit ki bu jant ba soo bis ba tàmbali na ba keru jant ba di soowaat fu mu fi juddu fu nekk jàppal ne ca bis boobu la judd maanaam ku judd woon fii nu toll nii kon yaa ngi juddu mardi su ngénte kañ la lundi lay doon mu ngoog mooy sa juróom-ñaareelu fan léegi nag am na ñoo xam ne ci téere fiq yi boo ca demee dañuy wax ne ku juddu ci lu mel ne bisub tey bii fekk bis bi xaaj la kon bis boobu dañ koy wàcc duñ ko limaalee dañuy bàyyi ba suba ñu ne looloo josam bu njëkk su ko defee nag suñ koy lim su boobaa bis bi mu judd woon mooy nekk juróom-ñaareelu fanam ndax limaale woon bis bi mu judd woon waaye loolu doon na wax joo xam ne xel nanguwu ko sariya nanguwu ko ndax sariya yow mu saabi ay la wax te koy wàññi defe naa ci benn ngay tàmbale booy wàññi fa mu juddoo ngay tàmbale kon fa juddoo mooy bisam bu njëkk danaa ci di joxe misaal ma ne defe naa ku la ne woon kaay ma ci benn service ngay liggéey ma di la fay par bés waaye bis bu jëkk bi kët du ma la ko fay dangay ngay bàyyi ba sa suróo sa noonu mooy bis bu jëkk bi loolu doo ko nangu kon xale bi moom itam loolu kenn bu mu ko ko teg moom itam bis bi bis bi mu juddoo loolu mooy bisam bu jëkk boobu am na ci yoo xam ne day laaj waxtaan boo xam ne bu xaw a gudd lay doon nañ ko teg côté ba ñëwaat ci insha allah ki day laaj sababu jax jaxal gi nga xam ne seytaane da ko def nit ki ba tax muy gàttañlu ci def ay jaamu yàllaam lan mooy sabab si sabab si rek mooy seytaane moom yàqal doomu aadama rek moo ko tax jóg maanaam seytaane ab liggéeyam mooy góorgóorlu ba doo baax góorgóorlu ba doo def àjjana góorgóorlu ba sa war a fees dell bari ñu fa jëm néew ñu jëm àjjana looloo du liggéeyam su ko defee nag ku mel noonu bul ko dimbali te it seytaane buy yàqal ña yàqal mooy ñooy góorgóorlu ñooy jéem a baax ñooña la am soxla waaye ña bon moom xam ne ne ñooña jàpp na leen ba noppi maanaam kii rëbb du jàpp kenn ba dugal ko ci fiiram ba àggal ñëw di ko rëbbaat kooku noppi na ci moom du ñëw ci ñooy fanaan ca baar yaag ñooy fanaan ca musique ba caaxaar yaag sàngartaa yu mel noonu ñooñu seytaane amut ci ñoom soxla waaye ki mu soxla mooy yow mii di yow mii di julli di naafila yow mii julli yoor yoor yow mii julli guddi yow mi nga xam ne bu dërëm bu lewut tàbbee sa alal nga génne ko delloo ko borom yow la seytaane bi seet yow la soxla kon kooku nag moo ko war a bàyyi xel te su ñëw ca loolee nga nekk ca la lay jéem a yàqale yow mi góorgóorlu ci jaamu yàlla yi day bu mën a fexe ba doo bàyyi jaamu yàlla mu fexe ba dugalal la ci li ca bokkut muy biddaa nga yokk ko ca fexe bi dugal ci sa ak xër nga ne jaamu yàlla yi may def dafa néew xaaral ma dolli ci nangam xaaral ma dolli ci nangam dugal ci ay wérte dugal ci ay yëf yoo xam ne bokk ca woon nga tàbbi nag ci buntu biddaa foof mu daal di kontaan ca loola loola moo koy daal di gënal ka dem sax di naani sàngara kon moo tax jax-jaxal yooyu di la indi naa la boo defoon lii bàyyi lii def nangam yooyu yëpp yow tënkul ci sunna rek bul xool lam lay wax ci sam xel ndax loolaa baax wala loolaa bon waaye la baax ci sunna moo baax la ca bon it moo kii nee na fële ñu nekk ñoom ci France ci bi laa ci internet bi la jóge mais dafa am ay mag yu fa nekk ñoo xam ne ay mag lañ waaye ñooñu euh, bokkuñu ci ahlu sunna maanaam góorgóorlu ci daal ci wàllu sunna xëy na ay jullit lañ nee na dañuy dajaloo di def seeni azkar maanaam zikkar yoo xam ne buñ ñu koy def seeni wérd la yoo xam ne ci mbooloo lañ koy def nee na boo waxtaanee ñoom ne leen ah yéen kat lii nii ngeen koy defee biddaa la nee na lañ lay tontu mooy nun ci lii ci lan yaru ci lan màgg te it nii ko jëlee woon ci sunuy maam ñoom it ñu jëlee ko ci seen i maam lu mel noonu nag doonut luñ soppi maanaam lu yàgg la wane ne daal du lu bees mu ne lan la ñuy laa biire ñu mel noonu liñ leen di laay biir mooy ñu xam ne la yàgg mooy la yonente bi alayhi salatu wasalaam ak saxaaba yi nekkoon la yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam loola moo yàgg waaye la maam ak baay nekkoon loolu bëkk démb rek la su fekkee ñoo ko fi indi ñoom loolu bëkk démb lañ ko fi indi yàggut donte téeméeri at la wala ñaar téeméeri at wala ñetti téeméeri at sax yàggut wala lu ko la yàgg mooy la yonente bi alayhi salaatu indi ak i saxaabaam kon ñooñu nañ ragal yàlla te xam ne diine mooy qaala allahu qaala rasuluhu yàlla nee na yonente ba sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye bàyyi nee na ak maam nee na xam ne jëlewuñ yàlla jëlewuñ ci ak yonentam loola silsila bu dog la maanaam buum gu àggut la buum gu àggul nag ko ci jàpp doo àgg maanaam fa buum nga yem rek fa la sa mbir di yem kon buum ga jokkaloo ba àgg ci alquran ak na googa buum moom mat a jàpp ndax ku ci jàpp da ngay àgg loolu moom la ñu tuddee al urwatul wusqa ci jàpp da ngay àgg ci ngërëmul sun borom tabaraka wa taala kon ñooñu nañ xam ne biddaa ci boppam doonul bunt boo xam ne day àggale ci ngërëmul sun borom tabaraka wa taala waaye safaan ba merum sunu borom tabaraka wa taala lay indi kii de laaj bi bëgg a laaj moom xaw ma ko xoola Omar ba xam yow da xam loolu mu dén léeg-léeg arab yi ñuy làkk day day xaw a doy waar dégg naa dowlaat yow laa télévisé waaw daa am kilifa goo xam ne dafa amoon ci àndandoom ku ku dégg wolof lool am waa ji ñëw bind ko ab leetar ne ko atlubu minka nisfal ard boroom xam-xam bi xool ko xool xam mu jox ko ab taalibam ne ko yéen kii dafa mel ne lim bind ci araab wolof lay làkk kooku xool ko ne ko ah kii de xaajub suuf lay ñaan ci alquran maanaam kaamil maanaam bi muy ñaan xaajub suuf boo xam ne alquran la mi ko tudde genn wàllu suuf suuf si nga xam ne moom ci la ñuy dox su ko defee léeg-léeg léeg-léeg day am ñoo xam ne nañuy waxe day am ñu ko mën a dégg ñu ko ndaw la loo xam ne dafa bëgg a soxna baayam tere ko loolu ne ko li gën mooy nga dem tukki sàkku ji alal ba noppi waaw tukki gi dayema ci jaaxal ci sart ko ci ne faaw mu tukki sàkku ji alal maanaam boo ne woon daal demal liggéeyi góorgóorlu liggéey ba am loo mën a yore soxna loolu mën nañ koo dégg waaye faaw nga tukki nag loolu du ci sart ndax li nekk ci bopp yi jàppale nit ki ngir mu am dara faaw mu tukki loolu moom daa war jóge ci bopp yi ndax mënees naa am dara nag te tukki wu mënees naa tukki te doo am dara te mi ngi am nag bu baax a baax a baax fi mu toll nii am na ñoo xam ne fañ tukki nekk fa mu doonoon béréb yu yaakaaru lool la leen fa gàllankoor tey mooy lu ñuy passé ba ñibbi siwaat lu mel noonu nag su dee am kon euh, takk mbir mi ci tukki jaaduwul waaye nag mën naa laa biire doomam ne ko nag faaw nga liggéey nag ba am loo yore soxna nag loo rafet ndax loolu mooy li jaadu kii nee na benn étudiant boo xam ne day jàng ci université bëgg jàngitam mbirum journalisme muy laaj lan mooy àtte loolu waaw journaliste de bu fekkee ne dafa yam ci la ko war moom dañ koy aajowoo ndax bu fekkee ne wax li xew la te jaare ko ci anam goo xam ne mooy ci lislaam bëgg bokkul ci anam goo xam ne mooy siiwal ñaawteef yi ci askan yi nga xam ne boo dégloo da nga naan muy askan lu baax nekkatu fi lépp lu bon la journaliste bu ndax noonu soxlawuñ ko biñ soxla mooy boo xam ne day siiwal lu baax lu bon su ko mënta bañ a wax it mu bañ ko propagandal nag léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne xabaaru lu bon ni ñu koy joxee day mel ne dañ koy woo nit ñi di leen wax def leen ko di leen jàngal nañ koy defee ci biir xabaar bi journaliste bu mel noonu moom soxlawul ko journaliste boo xam ne day taxaw di feeñal yi nga xam ne moom lañ nëbb ci ab can tam baax di feeñal yi nëbb ci lislaam tam baax di bind ci xalimaam loo xam ne luy woote ci lislaam la di ko fësal ci journaux di ko def ci rajo yi di ko def ci télévision yi journaliste bu mel noonu moom askan wi soxla nañ ko moo tax kenn ko ne bul jàng journalisme moom kay jàng ko waaye na fekk la nga ci yéene mooy def lu baax su boobaa danga ci amub yoon waa joo xam ne day julli ànd ak imaam imaam sëlmal mu jóg di fay ab rakka te benn rakka faatu mu ne kooku nan lay def ala kulli xaal kooku dafa jëmal maanaam dafa juum moo kenn ku doon julli ba mu yàgg ay rakkaam ëpp rek ñoo yem ab atteem benn la su fekkee dafa tàmbalee jóg wala su fekkee julli gi mat na sëkk mu jóg ba noppi fàttaliku ne moom kat julli gi matoon na kon na daal di toogaat daal di sëlmal te daal di sujjóot loolu rek moo koy war su boobaa <coughs> kon ci laaj bi ñu doon wax léegi borom kon li mu bëgg laaj mooy Euh, jëfandikoo gi portable yi yan orientation lañ ciy def ndaxte moom léeg-léeg daal mu lëj le lool <laughs> ok loolu moom xam naa ne euh, daanaka foo toog di fa wax loo xam ne lu ñor la lu nekk da nga dégg ne portable yi ñoom ña nga yàqal ci biir julli ñu ngi yàq ci biir njàng mi ngi yàq xanaa daal laaj na mbokk yi jéem a xool bunt boobu fan la ñuy jaar ba seytaane ci jëm boppam du fa jaare ba yàqal leen seenum njàng yàqal leen seeni julli fexe ba boo julli wala nga toog ci dors di jàng lu sa yitte xat-xat ginnaaw yow dagg nga sa yitte ba jóge sa kër ba ñëw ci jàkka ja di jàng noppi loo ko def ko ci sa poos bi doo ko yëg dëgg la ñu bari mën nañ laa soxla mën ngaa def sa responsable boo xam ne <coughs> amaana communication yi ñu rëy mën na cee kabit sa liggéey waaye lii ngay wut si nii dara da ko gën te rëy su ko defee loola nga muñ ko boo noppee nga xool ña la woo amee ñu am importance nga woo leen dara du te taxul nga yàqal sa bopp wala nga yàqal say say morom ndax lu mel ni li ñuy dégg léegi ci haut-parleur yi loolu dañ koy enregistré wala jëlaale ko bu ëllëgee kuy déglu kaset bi ku mën a doon lay jëkk dem ci sa xel mooy ah bii dars bi xëy na doon te am na njëriñ itam ña fa toog day mel ne kenn orienté wu leen te yàlla xam na ne orienté nañ leen waaye dafa doon loo xam ne daal mel ne seytaane daal moo fi jaare di yàqal nit ñi te nag problème la boo xam ne dafa dafa yaatu dafa yaatu Euh, demoon na ba àgg ci lenn ci réew yi réew yi arab yi ñu liggéey ci biir jàkke yi appareil boo xam ne boo xasee dugg rek su portable dootu mën a sone ñu inventé ci lu mat nangami téeméeri jàkka ci Koweït waaye loola itam ndekete dafa am gravité ci nit ñi nga xam ne dañoo yor ay xol yoo xam ne appareil koy doxal ndekete soo duggee foofa itam xol ba day daal di taxaw lépp luy appareil buy dox rek loola daf koy arrêté biñ gisee ay nangami nit faatu ca ci lañ dindi appareil yooyu carrément bañ ko monté ci biir jàkka yi kon day doon mbir moo xam ne daal doonut lu yomb nit ñi ñoo ko mën a saafaral seen bopp booy dikk bàyyi fa portable ba wala nga bàyyi ko ci biir oto bi wala nga noppiloo ko def ko ci poche bi buy sone doo ko yëg boo noppee nga ubbi ko xool loolu mooy li ci tane kii gannaaw bu mu defee ay ñaanam nee na moom daal dafa bëgg imaam bi ñuy wax Abdullah ibn Mubarak rahimahullah nee da ko bëgg lool daal mu woon ku ko wax dara ci ay ngëneelam wala tegtal ko ab téere boo xam ne bu ca delloo dana mën a xam siire Abdullah ibn Mubarak la shakk ne Abdullah ibn Mubarak imaam la boo xam ne bu mag la euh, boo xam ne ni ñu koy faral di waxee dajale na ay ngëneel yu bari ngëneeli xam-xam ngëneeli jihaad fi sabilillah ngëneeli infaq fi sabilillah muy joxe ci yoonu yàlla ak xeex ci yoon yàlla ak tasaare xam-xam ngëneel yu bari moo daje ci moom yoo xam ne néew na muy daje ci nit bu la neexee mën ngaa jàng tarjamaam muy biographie am ci siyaru alaami nubala bu al imaamu zahabi wala sax ci xilyatul awliya bu abu nuaym al asbahani am na téere spécial boo xam ne dañ koo bind ci moom muy al imam abdullah ibn mubarak ku ñuy wax euh, docteur mohammad matar al zahrani rahimahullah moom moo ko bind téere boobu tam bu fekkee man nga koo am bu am njëriñ lool la kon Abdullah ibn Mubarak daal imaam la joo xam ne ku waree sa mën a waxtaane la laaji élection yi moom moom daanaka dañ cee dañ cee sonn ba nga xam ne dañuy wax rek dellu leen ci liñ ci waxoon bu njëkk moom ba tey dara soppiku ci gàttal wala football ndax dagan na wala daganul dañu wax na xeeti sport yi amu ci yoo xam ne yu ñuy araamal la wala yu ñuy daganal lu dul bu fekkee ne dafa am lu ca laxasu lu dagan wala lu ca laxasu lu ca laxasu lu daganut wala mu doon loo xam ne lu xaraam la lu mel ne football xam yeneen lu mel ne uñuy awraa nga ca maanaam góor su amee dara luy feeñ ci diggante am naqam ak ci wóomam loola du dagan te ñu ci bari la ñuy sol seeni diggante boobu am na fa luy feeñ leneen li loo xam ne day sànq waxtu waxtu julli ci ab jullit moo xam mooy koy football moo xam ko ko seetaan su fekkee ne loola da ciy juddoo du dagan su ko fitna nekk yoo xam ne mën naa ndaw ñi ba loola dong la ñu ba mu tee leen a liggéey tee leen a jàngi loola ci jëm yi bu boobaa du dagan ñépp réew moo xam ne da taxaw te jëm ci réew yu mel noonu da nga koy néewal fi ne xale yu bare bare bari seen bopp la ca nekk mooy damaa bëgg doon mbër damaa bëgg a doon ab footballkat damaa bëgg doon nangam yu mel noonu réew mu nar a dox wala nga nar a jëm fenn loolu da koy koy arrêté yam foofu ak jigéen joo xam ne euh, dafa ëmb wala muy nàmpal te fekk dafa woor wax nañ ba tàyyi ni ñetti étape moo ci am ci atte bi ki nga xam ne day def bu nekkul di ëmb ma ngay woor bu ëmbul bu ëmbul ma ngay nàmpal bu ëmbul ma ngay nàmpal te xam nga ne kuy ëmb wala muy nàmpal ku ci nekk sharia may na la nga bañ a woor léegi loolu mu wóorut su tegale bu bari nan la koy def sharia nee na ñetti étape la am donte nag boroom xam-xam yi ñetti étape yooyu kenn ku ci ne am na benn wax boo ci wax waaye toftale ko moo gën a dëgër am na ñoo xam ne dañ na day woor boole ko kafaara jooju wax diis na ba ëpp te amul dalil beneen bi mooy ñi wax ne dara waru ko boobu donte am na dalil dañuy jàpp ne xaw naa woyof kon toftale gi gën mooy su ma nee woor loolu moo gën munta woor waaye mën naa kafaara mu kafaara duñ ko tudde kafaara sax waaye itaam lañ ko tudde bu boobaa mooy mooy joxe lele ñu bis bu mu waroon a woor bu nekk te wóoru ko mu joxe ko lu mat dundub nit xool la nit mën a dundee ca dund boobu ca dëkk boobee mu joxe lu tolloon bu dee mille francs la mu joxe trente mille francs su fekkee fan fanweeri fan moo ko war su fekkee nag amut lu matale loolu su boobaa nag mu wàcc ko munta woor munta lele kon wàcc na ko su ko defee loolu day boole wax yooyu yëpp waaye benn bu ci ne day am étape bu mu koy defee su la nit la laalee laajee dara te xamoo ko ndax da ngay wax ne yàllaa ko yonentam ñoo ko xam loolu liñ ko jàngale woon mooy su fekkee ne lu aju ci wàllu diine la mën ngaa wax loolu question bi bu dee mbirum diine mën nga ne ndax amut ci diine loo xam ne yonent bi xamu ko waaye bu dee ci mbirum àdduna kët loola yàlla rek ngay wax ndax diw sàngam jóge na ci tukki xamoo ca dara nga ne ko allahu alam yàlla moo xam waaye yonent ba xamul ndax jóge na tukki ba am déet kon mbirum adduna yàlla rek mooy ci peeg lépp bu dee mbirum diine nag yàllaa ko yonentam xam nañu lépp ndax bokkaale gu ndaw day tax nit ki sax ci sawara ba faww bokkaale gu ndaw day mooy lu mel ne gistal lu mel ne waat ci ku dul yàlla te fekk amul beneen pas bu ca aju buy teg ko palaasu yàlla loolu ci bàkkaar bokkaale gu ndaw lañ koy tudde ñu ne bokkaale gu ndaw nag moo bakkaar yu mag yi ñoo tolloo daraja ñoo tolloo daraja lu mel ne naan tàngara wala iyaasu billah lu mel ne njaaloo moom bo li ñuy tudde bokkaale gu ndaw ñoo tolloo daraja borom xam-xam ne dañuy wax ne nag ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkaale la ko tuddee nañ ko jox mboolem attey bokkaale yi ndax nit ñi daw ko ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam kat nee na li li ma gën a ragal li ma gën a ragal ci mu mën leen gaar mooy bokkaale gu ndaw ñu ne ko luy bokkaale gu raw mu ne leen ngistal ngistal ndax sax na ci sunna jëfandikoo kurus déedéet saxu ci lan mooy at tëb jëfandikoo ko at tëb jëfandikoo ko day lu gën a néew ci li ñuy wax moo di bañ koo jëfandikoo moo gën loolu la ñuy tudde xilaaful awlaa waaye nag mën naa dem ba àgg ci loo xam ne qarinatul biddaa lañ koy tuddee bu nekkul biddaa ci moom it moom ci boppam it dafa lënkaloo ak biddaa maanaam day mel ne moom biddaa dañoo lëngoo ñoom ñaar ànd ndax kii wàññi te yar ci wàññi sunna kooku aajowul kurus ki bëgg a wàññi junniy dara nag junniy dara moom koo ko fekk ku ne xamal ne biddaa la kon la lënkaloog loola loola day wari ne biddaa nga foofee moo tax kurus nekk ko moo tax loolu moom jërte jëfandikoo yonent bi ak saxaabaam ak mel noonu yëpp dañ doon wàññi waaye mosuñoo jëfandikoo kurus di wàññi te xayrul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam da daan wàññi ci loxol la jooram di jëfandikoo ay baaraamam soññee woon itam ci def lool kon def na ko digle na ko itam wax itam dolli ca ne baaraam yi ngay wàññee bu ëllëgee dañu lay seedeel ne yow mi da doon tudd yàlla te defe naa ne doj ya ngay jëfandikoo ko wala bant ba ñooñu moom dañ la seedeel loolu bu ëllëgee ki nga xam ne daa fàttaliku ne am jàppoon toj na gannaaw bu mu jullee ba sëlmal su fekkee ne dafa jege day dem jàppiwaat dikk julli moo ko war su fekkee ne waxtu woo dafa wéy comme ne démb la amoon su boobaa loola wéy na euh, dal na koy wàcc ki nga xam ne dafa am benn som ci alal waaye ay fuqaraaw ak i miskin ña nga ndax li gën mooy moom som boobu mu am dem umra ji ci wala mooy mu jox ci yi ak miskin ala kulli xaal aj ak umra umra moom ci sunna yu feddaliku yi la lenn ci borom xam-xam yi ne farata la waaye sunna su feddaliku la su bari tuyaaba la itam aj nag moom farata la benn yoon ci ak dund maanaam ci ponki lislaam yi ci la bokk kon kooku di su ko dugal foofu su fekkee aju farata lay lay aji waaye su fekkee aju sunna lay aji nag maanaam aji woon na ba noppi bëgg a ajiwaat wala mu bëgg a umra ji kooku day jéem a góorgóorlu ba fexe ba yaar yooyu yëpp mu mën leen a boole maanaam def omraam ba noppi miskin yi mu bañ leen a xañ ndax kat fii boo fi booy déglu laaj bi ni mu mel day mel ni kooku daa am benn som bu mu teg fële boo xam ne bokku tëj li nga xam ne moom mooy baasu alalam dëgg te dañoo bëgg booy jaamu yàlla nag jaamu yàlla gi moo xam aj la wala omra wala xeetu jaamu yàlla yi nga def yi nga def ko ci sa baasu alal nag su ko defee leneen la tege fële loolu nga jox ci fuqaraaw yi ak miskin yi tibb nag ci sa capital loolu lañ bëgg ndax lan tanaalu birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun li nga bëgg ba sa xol di ci naf nafi nga ne lii moom bëgguma ci wàññi dara loola nag lañ bëgg nga tibb ca dem li nga teg fi nga xam ne da nga ne lii moom sama yëpp mat na ba noppi ba lii rek def fi nga xam ne ndolleen la loola jox ko miskin yi def ko nangam def ko nangam waaye nag nga tibb ci baasu alal ji nga dem umra ji loolu moo ëpp tuyaaba lu dul su fekkee loolu day gaañ nag sa dépense ndax dépense njaboot gi moom moo jiitu loolu moo jiitu ba àgg leneen luy tegee lu nekk door caa tegu moo tax ki nga xam ne dépense am matut sax kooku ak ji nga xam ne ponk la kooku waragu ko kon loolu lu ma bàyyi xel la ndax dagan na ñuy jagleel laaj bi ci internet bi la jóge ba tey ci biir jàkka ji place boo xam ne spécial la ci jigéen ñi ci foo xam ne duñ gis duñ gis góor ñi ah su dul yàq dara day ci seenu julli loola moom mooy li gën sax li ma jublu ci yàq dara ci seenu julli mooy ñu mën a nekk foo xam ne su courant bi coupé woon tey du ñu xamati julli ga fu mu toll maanaam suñu julli ba mu yàgg courant ba coupé dootuñu dégg kaddu dootuñu xam fu mu toll yëf yi jaxasoo ci ñoom su fekkee fu mel noonu lañ nekk ah loolu moom bu boobaa euh, du du gën muy doon foo xam ne dafa làqu ba duñ gis maanaam doon te ñee ca kanam sax dañuy gis comme lu mel ne fii sàppe si ci kanam jigéen ña taxaw danañ gis li ci kanam su courant coupé woon buñ déggatul kàddu it buñ xoolee danañ seen nit ñi ñuy rukkoo ko sujjóot suñu rukkoo su ko defee buñ rukkoo ñe ci seen gannaaw mën a rukkoo ci loolu te jàpp naa ne bu dee fu mel nii boo yëkkatee kàddu gi ci allahu akbar ñëpp a ko dégg waaye su fekkee ne jàkk ji rëy na ba àgg ci foo xam ne bu coupé nag dootu ñu xam lu xew su boobaa nañ fexe ba nañ koy doxale ñuy gis ñuy gis ñi ci seen kanam euh, lu bari li tax nit ñi faral di werante ci lii ndax mën nañ leen a beral place ndax ab miir mën dox ci diggante bi yu mel noonu nit ñi dañoo gëstuwut bunt bi ñu tudde al masalih al mursala yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoom jigéen ñi ak góor ñi ñoo doon julli ci biir jàkka ji ñoom ñëpp ñuy ànd di jaar ci benn bunt di dugg ak di génn tey xat-xatloo di fa am sax léeg-léeg Omar ibn Xattaab radiallahu taala anhu ne ko cëy bu fekkoon ne jagleel nañ bunt jigéen ñi dañ ci jàkka ji loolu lu baax lay doon yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di santaane ñu defal baabu nisa bunt boo xam ne spécial la pour jigéen ñi ñu fay dugge di fa génn kon nga xam ne masala bu mel noonu ak sàmmoonteeg nekkinu góor ñi ak jigéen ñi ci jàkka ji masala la boo xam ne palaasu ijtihaad la lu ñu gis ne moo gën a baax te juyowutul sunna rek mën nañ koo def kon bi mu gisee ne laaj nañ wutal ko bunt mu jox ko xalaat boobu daf ko wutal bunt loolu moo tax borom xam-xam yi biñ demee bi gis na jàkka ji nit ñi xatatuñ ko dañ xajatuñ ci dañ ko yokk ne continué yokk jàkka ji kenn néewul la yonent ba doon dara waaye dañ koy yokk di ko yokk ba mu àgg fii mu àgg tey nga xam ne borom xam-xam yi histoire yi gis nañ ne Madina ci jamono yonente ba sallallahu alayhi wa sallam lépp a ngi ci biir jàkka ji tey foofu maanaam Madina lañ ñu dëkkoon ci ay kër ci jamono yonente bi lépp a ngi ci biir jàkka ji tey kon loolu lépp ci buntu ijtihaad lay dugg yonente bi alayhi salaatu wasalaam dem na ba jëmmi jamono dëgg la buntu jigéen ñi am na ña ngay jullee ca gannaaw góor ñaa ngi jullee ci kanam waaye jàkka ji dem na ba nit ñi bari ba àgg ci sàppes góor ñi day nekk nii sàppes jigéen ñi sës ci ci gannaaw bi nga xamee ne loolu am na euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am benn bis ñu ne dafa am koo xam ne ci góor ñi bi mu sujootee sàppe si ci gannaawam ay jigéen ñoo ci nekk daf doon wër jigéen ñi ci ay poqtaanam fekk mu ngi sujoot xabaar boobu àgg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la waxee ne li gën ci sappee góor ñi mooy ba féete kanam bi ci yées mooy ba féete gannaaw li gën ci sàppay jigéen ñi mooy ba féete gannaaw bi ci yées mooy bi féete kanam loolu moo taxoon góor ñi buñ duggee ci jàkka ji ñuy njëkkante di dem ca kanam jigéen ñi buñ duggee ci jàkka ji ñu góor góor gën ci sàppe fa nga xam ne moo féete gannaaw kon loolu moo ko waraloon pour ñu jéem a xool na la ñuy def bañ soree kon loolu lépp moyens yi lu mel noonu foofu la toll woon kon buñ demee ba jëmmi jamono nag moyen am na boo xam ne warees naa mën a defar ci diggante bi loo xam ne barrage la bu dox diggante góor ñi ak jigéen yi te barrage boobu du tee mën a gisante du tee ñu mën a xam fu julli ji toll su boobaa loolu day jaar jaadu moom la ñu tudde almasalihu mursala mooy loo xam ne texte ñëwul di ko digle texte ñëwul di ko tere waaye buñ ko xoolee am na intérêt ci wàllu diine lu mel noonu su boobaa sharia tërewut tërewut ku ko jëfandikoo defe naa kon lii mooy question yi nga xam ne ñoo fi jotoon a ñëw su fekkee amul laaj boo xam ne direct la kon ñu yëkkati jotaay bi insha allah ba la joor ñu soxla biir comme xawoon na ko ci ñun ndax boo ko dajee ñu daal di Sénégal ñu ngi war a combattre train mu ne ko ñoom dafa soxla biir ndax mu ñu ko biir dimbale ndax gars yi dafa naan nee na moom tamit am keneen bu xamoon ci yéen ci loolu mu wax ko kooku ànd ak moom ñu daal di def ay jaay bi ñu laaj biir ñu daal koy def ndax mu ñu ko leen cent mille ay léegi ñu wax ko ndax moom ci biir biir la soxla te mu soxla gars yi waaye daaw nga bëree alhamdulilah loolu la ñuy tuddee simsaar simsaar mooy intermédiaire boo xam ne day dox ci diggante ñuy jaay ak ñuy jënd ngir seeral ko ci kaw ñuy jënd loolu dañ koo tere waaye dafa am benn exception mooy su fekkee ne nit ci lii mooy liggéeyam ba ñëpp xam nañ ko ne ci marché bi lii liggéeyam mooy moom jaay bee ak jënd ko mooy liggéeyam moo kii dem di jënd ci grossiste ba di ëndi di détaillé di jaay nit ñi bu boobaa ñoo bokk ab àtte li muy bañ mooy mu doon waaju ne lay nit di cëpp ci biir bi nga xam ne jaay jëndut waaye lam koy liggéeyee mooy dox diggante nit ñuy jaay ak ñuy jënd loolu moom sharia daf ko tere parce que lor ñuy jënd si la moo tax mu ne bàyyi leen nit ñi kenn ku ne mën a jariñu sa morom direct waaye su fekkee nit ci ab agence la yor parce que li nga wax ni agence de voyage lu mel noonu la ñuy liggéeyee maanaam dañuy jëlee fële jaaye loo xam ne gën naa seer tuuti pour mën fee am dara kooku loolu mooy liggéeyam sañ na ko yow mi ubbi sa agence nga xam ne loolu ngay def sañ nga ko ndax soo ko deful ñii lay liggéeyal doo leen fay place bi nga luwee doo ko mën a fay kon la ngay jëndee ca boroom euh, boroom air ba ci boppam nga xam ne mën na laa jaayee lu yées tuuti nga jënde ci moom lu bari jaaye ko client bi lu gën a néew man caa am dara loo xam ne bénéfice la man caa fay sa location man caa fay say liggéeykat loola su boobaa yow yaa ngi ci biir liggéey bi ci nga bokk su boobaa dara du ca nekk waaye nag yi nga xam ne daa nekk ci diggante bi moom di dogale nit ñi rek jaar fii dugg fii génnaat am ca dara kooku moom loolu dañ ko koy tere te kooku yëmut ci njaayum biir rek waaye même ci biir marché yi daf fay am nit ñi taxawal ñoo xam ne boo leen jëpp rek ñu ne loolu loo bëgg te ñoom amuñu dara waaye boo leen waxee li nga bëgg dañuy dem ci keneen fexe ba jëlee fa loo xam ne fukk lay jaar jar ñu ñëw jaayale ko fukk ak juróom daal di jël seen juróom jox ko fukkam loolu moom dañu koy tere parce que lor kii jënd si la wallahu aalam ala kulli maanaam jëmmi liggéey moo xam mi ngi am dara moo xam amul dara moom la ñuy tere moom intermédiaire boobu nga xam ne moom la ñuy wax simsaar kooku liggéey yi nam dañ koy tere moo xam mi ngi ciy gañe moo xam gañe wu ci waaw su fekkee ne daa jékki-jékki rek arrêté mbirum doomam day te benn sabab taxut maanaam du ñàkk wér-gi-yaram du lenn kooku moom loolu daganut ci moom daganut ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam dana tasawaju alwalud alwadud fa inni mukaasirun bikum al umama yowma alqiyaama ëllëg damay ëpp leen teeg yonente yi jiitu woon aw xeet nee na kon na ngeen bari seenum jur seen kem kàttan loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam daf cee soññee nit ñi dañoo war a góor góorgóorlu ku mën a jur ngay jur te it loolu muy def danger la bu leen fàtte li fi daloon nit koo xam ne noonu ci suñu bopp gis nañ ko ci bato la joolaa la ko dale woon ñeenti doom la amoon dem def dem limité naissance am duutu am doom yàlla dogal ñeenti doom yi amoon yëpp def ci bato mu wëlbati ku dellu zéro kon amatul benn doom te it mënatul a juraat kon yu mel noonu lu mat di bàyyi xel la te nit ci doom yi mu jotagoon a jur ginnaaw am wér gi xamul doom yu jëkk ya ak yu mujj ya kan moo ciy baax loolu moo tax mbir mi aaja tey am na benn président ci jamono ya weesu euh, mu jékki-jékki xëy rek ne tere na ci am réewam ku jur lu ëpp ñetti doom ba ko benn imaam bi tontu dane ko sa baay bu def bu defoon noonu doo juddu ba jiiteem réew ndax yaa doonoon fukkeelu doomam kon yooyu loolu lu ma ta bàyyi xel la waaw benn yàq bi comme ni ñu ko jiyee sax rawatina ci mbokk nga xam ne jàll na solo ci lawal maanaam ne léegi sama yi ay wàllu ci àll. ñu koy bàyyi xel bu ko biir ci dàll ak yoo xam ne ñu ngi ko bokk. waaw moom waaw loolu dëgg la maanaam jëmmi jëmmi sonore yi ci boppam am na ci yoo xam ne boo ko déggee musique la te am na ci yoo xam ne musique la sax yoo xam ne musique iblis ci boppam la sax faf nga yóbbu ko ci biir jàkka nag muy fëgg foofa wala musique yoo xam ne musique chia la yoo xam ne dañ koy woy di ko boolee di saaga saxaaba yi nga yore ko yooyu yëpp yu mat a wattandiku la boo nekkuloon ci biir jàkka rawatina buy dugg ci biir jàkka ak place bu ñuy jànge salaam. ñaareel bi mooy comme jàpp yi ñu wax tàppe jigéen ñi jigéen ñi ak góor yi ñu bañ a day naan keroog rek ñu daw rek ci journée dama def ci kaw jigéen ñi mooy comme tàppe bu ñu mel ñetti rajo yi

sàppe sa féete gannaaw moo gën ci jigéen waaye nag bu feesee ñu jàll ci sàppe sa ca kanam maanaam sàppe jigéen ci ca gannaaw lay tàmbalee jëm kanam comme ni nga xamee ne sàppe góor ci kanam lay tàmbalee jëm gannaaw waaye nag sàppe su bees ci kanam feesee dañuy commencé beneen sàppe jigéen ñi lu mel noonu noonu la war a def waaye xëccoo loo gi ne ñoom ñëpp ci benn sàppe la ñu taxaw loolu jaaduwul am naa nag euh, xol bu dal na ko nit ki di xamee su fekkee ne am na ko borom bi tabaraka wa taala daf ne ala bi dicrillahi tatma innul qulub ci tudd yàlla ci la xol di amee ak dal xol bu am ak dal mooy xol boo xam ne mucc na ci fërfëri ci lu ko jarul fërfëri ci lu ko jarul maanaam lu jarul tiit mënulaa tiitloo kon lu la jar tiit mooy lu dox sa diggante ak sa borom def nga bakkaar xalaat nga xalaat yu baaxut tooñ nga loolu moom jar na tiit jar na fërfëri jar na jéggulu sa borom tabaraka wa taala jar na jooy sax waaye nag loo xam ne leneen la sama dund bi fan laa koy wute fan laay am lu ma joxe njaboot bi sama bor yi nangam yooyu jarul tiit góorgóorlu rek borom bi tabaraka wa taala dana ko fay góorgóorlu te jaar fa nit ñuy liggéey di jaar te góorgóorlu te am jom borom bi tabaraka wa taala dana ko fay yeneen yi ci des nag yéen lay xuppee la ngay ragal ne nangam mën naa dal ci sama kaw li mel noonu yooyu bul ci bàyyi xel xamal ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na xamal ne su fekkoon ne adduna li ci biiram ak lu yàlla ma a bind sax fof dajaloo nañ bëgg laa jariñ ci lu toll bu tuuti bëgg la koo jariñ ci loo xam ne yàlla bind ko mënuñu la koo jariñ nekke noonu adduna ak li ci biiram ak li ma a juddu dajaloo nañ bëgg laa lor lu toll ne tarfatul ay loo xam ne yàlla dogalu ko loolu mënuñu la koo lor moo tax mu teg ca ne kon mbind na yàlla bind na la muy bind téere ya fendi na lépp noppi na kon bul tiit bul am looy ragal bul am looy jàq borom bi tabaraka wa taala noppi na ci say mbir kenn mënu rey te fekk sa dee bu jotee nag kenn mënu laa moo tax mu ne wa ida almaniyatu anshabat azfaaraha alfayta kulla kalimatin la tanfau su fekkee ne dee xas na ñëw nee na dara amatul njëriñ boggal de yaag yam takkoon ak yëpp su fekkoon ne yéen it say takk yooyu dañuy tee dee kon li ñuy tuddee doggali du am doggali mooy nit ki faatu ñëw di tekki gàllaaj yaa kii fi fan yi mel noonu door koo sang gàllaaj yi ginnaaw moom day faatu ba noppi ñu door koo tekki kon la leen taxoon a jóg defuñu ko maanaam dee jot na dee moom day am su fekkee ne dee jot na ci nit kenn mënta góorgóorlu ba ab ko su jotu nit nag dundam googu kenn mënut a fexe ba wàññi ca benn seconde kenn mënu kenn tanawu a ci borom bi tabaraka wa taala noppi na ci loolu te ku yàlla bind mënul ci loolu dara loolu nag ku ko xam mu doon pas-pas bu nekk ci xol bi looy ragal amut looy ragal <coughs> waaw xanaa li ngay ragal mooy tooñ tooñ daal moo baaxut moom nga xam ne day indi bakkaar te it mën naa indi fitna waaw ba am ñu tuddee ay numéros écart am ñu tuddee numéros écart. léegi ki nga xam ne fa aada woon di julli si jàkka bi dafay teel a julli léegi ñëw fekk jàkka bi def te beneen jàkka bi def ndax day julli si jàkka bi day ñëw julli si jàkka noonu su ko defee wax nga xam ne doon wax su jàpp si sa dem si jàkka boo fekkee mbooloo bi ñu doon julli wala war a xaar benn jàkka bu mu jullee beneen laaj bi mooy xarit bi nga xam ne wax man tax na ko tamit ma def sallallahu alayhi wa sallam amul temps alhamdulilah laaj bu am solo la jëkk a laaj mooy waxtu julli yi wuute ci ci biir ndakaaru tey xam ngeen ne waxtu julli yi amoon ñu tëraloon ko dañ ko fixé woon rek ci ay waxtu yoo xam ne yu yu wéy la yoo xam ne dañ lay wax ne rek suba nangam la tisbaar nangam la takkusaan nangam la timis nangam la jeer nangam nga xam ne daanaka tisbaar ak takkusaan moom ñu ko tegee woon daawut soppiku ñu dem ba jëmmi jamono am ay mboolo yoo xam ne dañoo jóg génne waxtu yoo xam ne ñoo gën a teel waxtu yooyu rawatina ci tisbaar bii mu tudd ndax bu fekkee am nañu julli treize heures et quart am ñoo xam ne dañuy dem ba quatorze heures et quart kon kooku une heure de temps na seen diggante ci genn julli ci yenn julli <coughs> foofu damay wax ne bala ma ñëw ci masalab ci julli fële ba noppi ñu war a julli fii dëgg la ñi nga xam ne ñoom ñoo indi xalaat bu bees bi muy soppi waxtu yooyu delloo ko ca waxtu yu normal ya seen xalaat lu baax la waaye nag li ñu jëfandikoo ci ay jumtuwaay pour pour appliquer loolu foofu njuumte te fee am moo di ginnaaw nekkuñu foo xam ne état moo nekk responsable di génne loo xam ne bu ko génnee mu tegu ci kaw xeet wi ay jullit fa nekk ak ay jàkka suñ fekkee war a jël décision bu toll noonu laaj na sensibiliser ñëpp dem ci imaam yi ci réew mi ñëpp wala lu néew néew boog yi nekk ci biir dëkk bi yëpp bañ a bàyyi jenn jàkka fexe ba convaincre leen ba ñëpp bokk assemblée générale boo xam ne ñëpp a koy bokk toog ñu waxtaane ko ba d'accord ci ne wax sàngam bu jotee nañ julli tisbaar bu wax sàngam jotee nañ julli takkusaan suñ defee loolu ba d'accord ci su boobaa lii nuy gis tey du am maanaam ñoo xam ne dañuy nodd julli toog lu ba une heure de temps nga déggaat ñeneen di nodd ci wenn waxtu wi kooku moom ñaaw na ci askan te loolu li ko waral mooy ñàkk a convaincre nit ñi ba ñëpp d'accord ci loolu ñi door a tàmbali di def loolu loolu moom njuumte la loo xam ne dafa am ah léegi nag fan la ñuy jaar ba réparé ko ndax ñii ñooy dem fekk ci ñële wala ñële dañuy dem si waat te lu jëkk la yàlla moo xam ne ñuy doxale lu mel noonu mu des nag li mbokk mi laaj mooy kii ñëw na treize heures et quart fekk jàkka di julli bu julli ba noppi jóge fa dem ci jeneen jàkka joo xam ne amaana ab dars la fa doon déglu amaana leneen la fa doon def mu ñëw ci jàkka jooju fekk ñuy julliwaat su boobaa li ko sariya sant mooy ne julliwaat ànd ak ñoom su ko defee julli googu mu julliwaat ak naafila la dana ci am tiyaabay koo xam ne dafa julli julli naafila loolu lu baax la su fekkee ne julli ga diggante julli tisbaar la ak julli tisbaar waaye kat su fekkee li nga xas julli nag julli takkusaan la moom maanaam moom nga julli ba àggal fekk ñeneen ñuy julliwaat tàkkusaan ñooñu duutoo mën a ànd ak ñoom ndax ginnaaw julli nga tàkkusaan ba noppi mënatuloo naafil la ama xadis bi wax nag man taallaqa tamimatan fala atama allahu lahu wa man taallaqa wadaatan fala wadaa allahu lah xadis la boo xam ne xadis bu wér la xadis bu wér la wallahu taala alam waaw su demee ci beneen jàkk julli fa loolu laa wax ne loolu naafil la su jullee julli bi ba àggal dem ci jeneen jàkk julliwaat fa loolu naafila la waaye na fekk muy waxtu wu dagara naafila waaw waaw fekk julli moom foofu. jël nañ ko doon ci na sax nga mhm. dem julli ji. ah dara ne alakul xaal loolu dara newu ci maanaam ñëw na ci jàkka joo xam ne treize heures et quart la ñuy julli fekk nañu julli ba sëlmal am na jeneen jàkk jum xam ci koñ bi ne xam na ni ñuy quatorze heures et quart la ñu julli mu xaar ñooñu pour julli ànd ñoom julli mbooloo loolu ba tey baax na parce que bu leen fàtte ne quatorze heures et ci biir waxtu wi la nekk maanaam waxtu tisbaar génn lagul dafa def ci digg waxtu wi sax ci la nekk treize heures et quart nag mën naa doon foo xam ne fi la waxtu wi tàmbale kenn naattablu ne julli ci njëlbeen waxtu moom moo gën jekki ba ci mujjub waxtu wala jekki ba ci diggu waxtu waaye loolu su fekkee ay jàkk dañ koy def ci wàllu organisation nañ ca yëgoo nañ ca yëgoo julli ci njëlbeen waxtu yi moo gën mais ki julli ci digg waxtu bi am na julli goo xam ne gu mat sëkk la ki julli ci mujj waxtu sax am na julli goo xam ne gu mat sëkk la kon li amoon solo rek mooy waxtaan ba tànn diggante boo xam ne ci waxtu yi ci la jàkk yëpp di ànd di nodd julli waaye li ñuy dund ni fii ne moom xaw naa tuuti ay jafe-jafe ndax gan gu fi wàcc doo xam kañ la kañ la waxtu julli di jot kon ñu jël laaj bu mujj tontu ci tontu lu gàtt insha allah ndax waxtu julli di jot na ñu ngi ma koy yëgal. salaam jàng alxuraan léegi nag bu fekkee xadis wa sallam di wax ne bu fekkee jullit génn àddina jëmam yëpp day dox ba mu def ñett bu fekkee xadis bu wër la ba a comme yan alhamdulilah la ñu euh, loolu laaj bu am solo la mooy nit ki bu xasee génn àdduna wërsëgam dagg na maanaam lu ñu koy bindal tiyaaba dagg na lu dul ñetti mbir mu boole ca doom joo xam ne da koy ñaanal loolu rek wan na ne njàngum alxuraan maanaam mëneesu ko def. ci gën defal nit koo xam ne dafa faatu ndax su fekkoon ne loolu la kon day wax ne doom ji koy jàngal alxuraan waaye waxut loolu doom ji ko ñaanal la wax ñaanal nag bokkul ak jàngal alxuraan ñaanal ko mooy nga ñaanal ko yàlla mu jéggal ko allahuma axfir lahu warhamhu allahuma axfir lahu warhamhu allahuma axfir lahu warhamhu yàlla yàlla na nga yërëm sama ñaari waajur yàlla na nga yërëm sama baay yàlla na nga yërëm sama ndey ñaan yu mel noonu ca làkk wala dégg sa këm kàttan yàlla na nga ko jéggal ay ay darajaam yàlla na nga ko tabbal jannatu firdaws moo xam ci arab nga koy wax moo xam ci wolof moo xam ci anglais pulaar langue wa nga dégg nga wax ko ca ci jamono yu yoo toll yu nekk soo jullee ba noppi saaboo boo ko li ko saaboo bu sa xel demee ci moom loola mooy jëriñ sa waajur loolu mooy lu baax am nag lu am solo foofu mooy ñaan bokk na ci li ñuy tawassule di ñaan maanaam ngir bëgg ñu nangu sa ñaan mooy def lu baax ba noppi talal say ko ñaan lu baax loolu mën naa doon julli mën ngaa julli ñaar jàpp sa jàpp mu sell julli ñaari rakka tàllal sa loxo ñaanal sa bopp ñaanal say waajur ñaanal sa baay ñaanal xeet yi mën ngaa jàng alxuraan te xisbu bi nga war a jàng ci alxuraan jàng ko isib wala ñaari isib wala la nga mën a jàng ci alxuraan boo noppee loolu jëf ju baax la jëf ju baax jooju nga doon def nga ñaan yàlla ci jëf ju baax jooju mu nangul la lii ngay bëgg a ñaan mu ñaanal sa baay ak njéggal wala sa waajur loolu itam lu baax la loolu la ñuy tuddee at tawassul bil amali saalih jëf ju baax ji nga def nga ñaan yàlla mu may nga sukkandiku ci jëf ju baax jooju may la li ngay ñaan kon su fekkoon ne ka jàng alxuraan dafa wax ne damaa jàng alxuraan ba noppi ñaanal ma waajur kenn du ne ko li nga def du noonu waaye nag jàng alxuraan ngir yéene ko yool bi loolu moo mënta nekk moom la sharia xamut wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain